Cheikh Madiba yëpp àndandoo woote bis bii fas ko yéenee gàttandoo màggal gi ngir li ko waral bisub màggal gi xat-xat yi ak siyaare ya gan ñëw ñu war leen a fay nuyoo santante ak ñoom mooy xat ba duñ ko mën a nit ñi ko bëggee moo tax ñu waajal waxtaan wi ngir dundal fàttaliku gi ñuy fàttaliku ak ñaan yi nuy ñaan waxtaane itam li nga xam ne moom la nu yàlla boole te mooy sëriñ bi te xam ne amul lu dul moom ren jii nag am lu ci dolli bis boobu dañu koo jël tuddeewaat ko xaritu kiñ koy defal wëlëreem ak soppeem ku mu àndaloon di xëy ci ndigalul yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa ba mujj ñoom ñaar mel ne yaari jëmm lañu waaye kenn nit lañ ngir bokk ak bëgg ak pas-pas ak yéene bokk aw doxin te dundal loole yi di warte ci ñi nga xam ne ñoom la ndono yooyu nekk ci seeni yoxo tey tax ñu yëgal ko sëriñ Seex Fental Seck bi xalifa maam Seex Rijaal ànd ko itam ak mbooleem sët yi yëpp teew si nañu fi itam di nuy bu baax sëriñ Cheikh Fatim Seck ak sëriñ euh, Cheikh Rijal Seck bi ñu duppee maamam moom sëñ am Seck Rijal ak mboolem sëti sëriñ Mor Seck Rijal yépp ak mboolem taalibe yi wuyoo ak lu Rijal ñu seq jotaay boobu tey ak waa kër Seck Madi Bachir waajaloon ci waxtaan woo xam ne dañu ne lay commencé ba vingt et waaye jataayu murit mën naa am fu mu tàmbalee waaye kenn xamul fu mu yem léegi daal ni muy doxee mooy dañuy jox sëriñ Moustapha Sylla mu defal nu ak ubbi dalal gan ñi jàmm fay leen ab nuyoo wax yi yi la ji waral sunu jataay fii tey bu noppee ñu jox suñu kàddu sëriñ Fallou Sylla Daraman danañu defal ab genn ku ci diggante yaari jàmbaari diine yooyu di Cheikh si Sylla ak Cheikh Mor Seck Rijal ak liggéey bañ doon liggéey ci kër Serigne Touba bu jeexalee dina tombe ak Serigne jaay Ndiaye Nguerane ñëw fàttali nu pas-pasu mag ñu baax ñoo ñu toppoon seen jëwriñ ga di Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mel ne mooy pas-pas ba saxaaba ya royoon yoroon ba ñu toppee ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الردان والتمكين أما بعد فأيها الإخوة الكرام نحن تشرفنا بحضوركم معنا في هذه المحاضرة الخيم التي يقيمها جميع أسر الشيخ محمد وسلم لا سيما أحفاده الذين بذلوا جهدهم على إعادة ومراجعة حياة المريدين الأولين في سلوكهم الحسن ومعاملاتهم الطيب وأخلاقهم الكرام ليقتدي بهم الشباب ويعالج مشكلات المجتمع الإسلامي أيها الإخوة الكرام والأخوات فإن جميع أسرتي توجه تشكرات كثيرة وتهاني طيبة وتتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيني ngi كلبي بتويب moo xam ñu sëtoo ci Cheikhuna Ahmad al Khadim wala ñi sëtoo ci cheikh yi nga xam ne dañoo ànd nag Sëriñ Tuubaa ba dàq moom ak mboolem borom xam-xam yi fi teew ak mboolem soppe yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci turu Sëriñ Mahmadou Sylla mi nga xam ne moo jiite njabootu Sëriñ Amady Ba Sylla ak mboolem sët yi nga xam ne ñoo taxawal muhaadara bii nga xam ne. am na solo lool kon nag ñu ngi lay delloo ak cant mboolem njaboot bi seen yëpp ñu ngi sant seen teewaay ci bàyyi gi ngeen bàyyi seen itte yëpp te xam ne jamono xam ne waaye njaboot bi jot na leen waxtaan bi ba waxtaan tamit jot na wi dafa ci doxinu mag ña mag ña ànd ak Sëriñ Tuubaa mag ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa balaat a seeni doxin seeni jëflante yu rafet naka la ñuy def ba delloo si ko ba ndaw ñi man ci roy loolu mooy waxtaan bi ñu gis ne loolu ak fàttali a te fàttali sunu borom moo njëkk digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fàttali ndax moo ne ko وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنه صلى الله عليه وسلم ماذا يقتل لا قتل دلني رجل كن أبدل دق دق أربو قتل ولا قتل وهنا تمت وذكر إن نفعت الذكرى ماذا يقتل وفيك يقتل دلني رجل نحن جل أربو قتل رجل ولا قتل كن لولو dañ koo dillu si waaye nekkul lu bees wax suñu borom moo ko njëkk santaane te bu ñëwee ci saar wi nga xam ne moom la suñu borom tuddee Mariama alayhi salaam danañ fekk muy wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko del fàttali ko del fàttali jaar jaari anbiyaaw yi nga xam ne ñu la jiitu woon su ko nga mën cee roy saxaaba yi mën cee roy baax moo tax suñu borom bi wax naan ko wasbir fi kitaabi Muusaa innahu kaana muxlisaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttali ko Muusaa del fàttali jaar-jaari Muusaa saxaaba yi lan ngir Muusaa kat dafa amoon jikko bu rafet nekk ci moom ba tax ñu ko mën a fàttaliku mooy lan mooy daan sellal diggante ak boroom lépp lu nga def rek boroom dong mooy tax مدرسون برام مسكو سلر تأي تأخ تكترم تبين كل الفاتن مدرسون برام يعنى فاتن نعم وصل في الكتاب إسماعيل نهلا إنه كان صالح الوعد النبي صلى الله عليه وسلم قد نسل يا جارو إسماعيل سوى لك سهام من تيوري من تيوري لهم كتب كفنطن كدون ما لب لما زار لا بده رك كانوا كده كن دي هو أبو إسماعيل أنا بو مدا مدا كن نزل نزل يمن جمعت له وسكر في كتابي إدريس إنه كان صديق النبي قتل من إدريس لكن كنت كلو ما تيجي نعم برو لب لو برو تيجي نعم كانوا كده لب لو بعد كانوا كده كن دي هو أبو إسماعيل لكن يرد إسماعيل الله عليه السلام moo taxoon suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ci roy ak saxaaba yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy na ci mboolem jikko yooyu ba jikko yooyu yi nga xam ne ñoo ànd moom doon nekk ci moom Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñu sëriñ ñëw jël mboolem jikko yooyu nga xam ne moom la anbiya yi lamboo woon ñëw lamboo ko mag ñi ñoo ko ba am ngërëmam laa mooy jikko yooyu kon mag ñu ña suñ ñu ngi delloo si kon nee ñu ngi delloo si wër jikko yi anbiyaawu ñu ngi delloo si jikko yonent bi sallallahu alayhi ak sahaaba yi kon loolu mooy li nga mooy li war a jotaay bi mboolem sëñ si xamul si nit maase na kon mag ñi nga xam ne dañoo daan kon ngir mu sëñ Tuubaa te suñ jikko yu tedd yooya ndaw ñii nga xam ne ñu ñoo ñu jamono ci royee mboolem problème bu ma sa am ci adduna bi yooyu mën naa rek moo tax mboolem seen seexul misel yëpp maase na ne seen jikko nga xam moo nekkoon ci mag ñi ñu ko delloo si bu ko defee da mooy dimanteew loolu nag ki ñu mooy si ñaxaru Njaay Ngiraan waaye mu def mel ni ki egsegut waaye nag jotaay bi ba am leen lu ci am mooy dañ ko tuddi ku ne wax suñu mor sekk la jaar nga xam ne moom suñu mbir mi dañu amoon àllaax mooy relation bu dëgër a dëgër boo xam ne nii ba na ko delloo si ba ñëw di xam ko ba ñëw di mën a dund loolu nag ki ñu koy mooy si fallu si na darman bi mooy andi loolu alaaxa bi nga xam ne alaaxa waqiida xawiya asiira bi nga ne moo doxoon diggante sama diba ak suñu Cheikh Mor Seck Rajab alaaxa boobu dañu seen fallu si na darman wala andi su paree dañu def si Amadou Ndiaye gërëm ñu andi waxtaan bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Madi Bissiré jëloon ne nañ ko waxtaanee ci bis bii kon lii nag mooy dañuy jox kàddu sëriñ Fallu si la daramaan ah mën na jox saafaraw kon si amoon jàngewaam mi ngeen xam ci jàng ak jàngale ak gëstu ci mbirum sëriñ Touba ak doxinu mag ñi nga xam ne ñoo am ak sëriñ Touba kon moom lañ jox kàddu gi ñu ngi ñaan sunu aw lan mi ñoom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 وعلى آله وأصحابه وخدمه سوي الرضوان والتمكين. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي جيتل في نيويورك كيف يجون سيد المختار. نيام سنبرم دارلي كو جابل دارلي كو دعيران. بلي مويه نجيوان سنبرم دارلي كو كامي جاب. نيويورك كيف دارل خدوس سيد المختار. nuyu ay jëwriñam sëriñ Cheikh Mbacke Madina Cheikh Abdoul Fattah ak seen doomi bopp ji sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamad ak mbooleem ahfaad Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp danañ suñu borom boole taxaw dolli leen a suturaal ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla ko ci dara suuf di nuyu kilifa njaboot gi sëriñ Mouhamadane ak mbooleem mu bokkal sëriñ Madina di nuyu ahfaat yi di ko jaaree ci Serigne Abdou Sylla ngor ak jigen dem nañ suñu borom boole deugal di jëkkante ak waxtu wi di yëkkati suñu kaddu mu jëm ci benn tombu bo xamanteni ni bëgg nañ ci layante biir waxtane ko ndax mu am lu ci jànge loo xamante ne ni dana nu mën a jàppale ba nax-nax yi nga xamante ne ni moom la jamono indi suñ borom dana nu ci musal danañ ci mën a sukkandiku itam ba mën a rawale suñu pas-pas te ak ko te doxinu mag ñi moo tax nu tàmmoon tey waxtaane kenn ci jaboot gi muy waxtaane sëriñ Mademba la ci ay taxawaayam ak ay jaar-jaaram waxtaan wi nag dañuy jàpp ni mel ni magum islam mu yabaroo ci keppaaru sëriñ Tuubaa moom la ñuy ndax moy tax nu man ko jariño ndax jamono da toll fo xamanteni ni nii nit ñi dañu gaw ci personnalisé waxtan muy boo nee nangam rek ñu ne ah diw lay waxtan da ci bu genn seen bok te ma jàpp ne mag ñi mom liñ doon am am nañ ko ba pare waye suñu leen di waxtaane ngir fatlikulen ba man leen a dund moo tax ñu di leen waxtaan moo tax ci gën a yaatal mooy dañuy jàpp mu yaroo ci keppaaru Cheikhul Khadim moom lañuy ñuy waxtaan waxtaan wi itam ñu bañ koo yéem waaye nañ ko jariñoo buñ ko yéem mooy dañ koy jéem jariñoo jariñoo gi mooy liñ fi tudd ci ay valeur ñu jéem a xool valeur yooyu nan lañ koy jéem a ci sunu bopp ngir nu man koo jariñoo ndax xam nañ ñi jamono nëx na lii soppiku bari na li dugg si ci yoon wi te bokku ci bari na li nu wuutale ak mag ñi itam bari na te ni li mag ñi bëggoon lañ bëgg kon laaj na ñu delluwaat gannaaw gëstu jiwaat dundu mag ñu baax ñoo ñi nga xamante ni ñoo ñu fi bàyyi jéem a xam fan lañ tegoon seen tànk ndax wolof day wax lu am solo loo xam ne fonk na ko trop ndax ñaare suy wax dana ko ci dugal mooy fu ndox daan taa boo demee danga fa fekk ay tepp tepp la loolu baat bu yàqu la wala seetluwu ko bàyyiwu ko xel ndax buñ ne fu ndox daan taa boo demee danga fa fekk ay tepp tepp boo fekkee am nga dégg bu baax a baax da xam ne bu baax a ngi wàññi fu danta tay bo demé da nga wara fous waye waaye tepp teppal moom ci ngiss la jëm te faju aw mar raxasut bor kon mo lay xamanteni le valeur yi mi ngi reen dank dank kon da fay melni crise économique bi nga xamni ne ñun ñëpp marché diko di ko jàmbat koo dajal réew mi neexut réew mi nangam nangam amut nangam amut liñ perte ci ay valeur moo ëpp doole fop te bayiwuñ ko xel suñu jikko ngi yaq suñuy culture ngi soppiku suñuy soriyaate mi ngi gën a am sunu xajjali ko mi ngi gën a fës te yeb yëpp yëguñu kenn jàmbatu boo dégloo barki dem rek discours bi Cheikh mohammed muntaha don def ci Porokhane ji dañu bomb yi nga xam moy mooy aduna ba kenn ku nekk tit ba kenn tënatu dara nee jikko yu bon yi ci sun bir moko raw te yoy kenn bayu ko xel yooyu nag wuute na ak lool fi mag ñi nekkoon loolu moo tax ñu war a delluwaat gannaaw xoolewaat mag ñooñ yi nga xamante ne nii saa yu ne mag ñu suñu xel dem ci ñoom te mag ñi sañ ci ñu adduna waaye seen góor góorgóorlu ak seen pas-pas seen pëstéef moo tax saa yu ne mag ñi rek suñu xel dem ci Sëñ Tuubaa gi ànd la donte am na ñu leen fi jiitu kon fexe nañ ba histoire bàyyi leen paas histoire bind na leen tëddee leen fàtt kon non itam am na taxawaay yu ñu war Cheikh mohammed moussa da doon wax ni fu lu baax ne ku baax ko fu yob waaye bu fa saxee nag ab defarkat a fa ne mag ñi bàyyi nañ fi ay lono yoo xamante ni nii liñ yoroon ñoo ko war a sàmm te wa amama yan faunas naas fa yamkus fil ard li jariñ nit ñi kenn du ko yóbbu mag ñi jumtukaay yi ñu doon liggéey mi ngi fi toujours damay faral di wax ne rétroviseur bi ko tubaab di def ci waxtu bëgg lu rafet taxu daa bëgg a gis la ci gannaaw muy seetu bi ci kanam ak ñaari ñaari seetu yi ci pegg yi vitesse bi muy daw ci loolu la aju bu ca néewul rek mën naa réer wala mën naa génne foo xamante ni ni waru fa woon a génn moo tax faaw ñu fàttali ko suñu gannaaw xoolaat mag ñoo ñii nu am ci kenn koo xam ne mat na sëkk référence te boko waxtane waxtaanee day mel ni ko yoon wépp ndax mbokum ñepp te fu baax ñu ñoo doon daje fofu la daje won ak ñom te du Biafous kon man nañ ko jël exemple mu représenter fi mboolem mag yoon ni ngir ni weer wi doon nampé ben rek la muy Cheikhul Khadim te lañ fa jëlé yàquwut jariñoo nañ ndax seigne touba daf leen daan wax ni leen soo amee ndey yu bari mu soow te muur liwul bu la nàmpalee ba nga fer boo maqut suuf suñ borom mën na laa muusal ci xiiba te kenn ku ne xam na ni mii mag moom maqut suuf te ba ko mag ñi laaj maqut suuf lu mu dañ leen maqut suuf te mooy ñu yar la ba noppi ci yar ba delloo la say bokk lañ nga ci loolu mooy maqut suuf te kenn ku ne xam na ni fi mu doon nii loolu jamono bari na léeg-léeg nga yarlu ji nit ba mu ñëw fi mu doon nii ñi nga yoroon sa bopp tamit kon mooy sàmmi ba ñëw ñu baabaloon gën laa suur ne kon day mel ni caawa ko kon amut njëriñ sëñ ma diba nag waxtaan wi ci tomb yi rek lañ ko bëgg a def mooy benn bi waxtaan ci ak bokk nan la demee ak réew bi parce que nit itam boo koy waxtaanee faw nga gëstu cosaanam sëñ Moussa Ka day wax ni lépp looy waxtaanee te gëstu woo boo sàgganee ñu wan la ab safaan moo tax faaw nga wax fi mu bokk loolu dana am solo ci ñi bokk ci bokk gi dana am solo itam ci ñi koy dégg te xamuñu ñi bokk ci bokk gi li muy amee solo ci moom mooy ñu xam ne am naw léegi nii boo xamante ni waru leen a gën a bëgg lu baax waru leen teg gën a sonn référence la nga fas ko yéene dal ndax sëñ mën la mi ngay fir daw si day wax ni booy dab da ngay dem kuy dem te sori soo ko dabutit da nga sori booy da ngay dab kuy dem te boo ko dabutit moom ma nga ci kaw yoon wa lam lay fàttali itam mooy la sëñ Daam Abdourahmane la doon wax sëñ Mbàkke Madina rek ba mu waxtaanoon dane ko na xam ne mboolem maam yi nga maa ci gën a yaafuuf loolu ab soññ ndax ko xamanteni ne ni diggante sëñ Touba ak Mam Thierno ak sëñ Dam ñono la seq su la ne ma ci gën yaxu loolu ab soñu la bokk yu baax nak sëñ Touba nee na bay ci ak tos la gor lo kenn du la gën waye bo doone bi yaxu nak kenn du la ëpp ñax du jàggi ni rek nak mu ni bokk na ci bokk gi wala ni la ci demee motax ni la war mel déedéet sëñ Touba dafa wax ni bu leen ko def tolok mbokk col mbokk lu mu rafet rafet futti lak rek cee mujj am mbokk moom lu col ci rafet rafet futti di mu seen nga teg ci taal bi rek lay mujjee moo tax foo bokk te sa jikko baaxut xamal ni doo kenn moo bànqaas bu waw ci kaw garaba yam bu la fa taxankat yi fekkee kenn mun laa dem ci taal loolu rek la jëriñ ndax garabu penc léeg-léeg yow ay dagg garab gi bant yi ya ca jub nga samp ca jàkk ji muy dégg nodd bant ya dëng nga yóbbu ca duus ba muy dégg la te ñoo bokk garab gi kon mag diwo bokk nangam loolu amul jëriñ da ngay fexe ba diw du la gën sa tafadul bi ñi natt nak moy attaqwa du ci deret ji waye deret ji ak japp ndal la motax bu ñu duggé ci wet goog yi nga xamé moy tomb bi ma doon wax légui muy bopp gi da nañ gis fofu yi sëriñ Maxtaar Marema muy wajuram ñu tek ci seigne Modou Ibra tek ci khadi tek ci Sombor Fatma tek ci Demb Musa loolu boo demé keur libas muy njabootu Cheikh Abdoul Ahad gi loolu nga bokk ak kon bokk bu gatt la go xamanteni ni bu ñu ne la woon mbokkum wa njaxate rek dana doy seuk ci nga man ko nangul ci ni melokan bi kon yaay batay itam bu dee ci wetu waajur bu jigéen danañ gis soxna Faati da danañ fa gi soxna Maane Gajaga danañ fa gi soxna Faati Jaxate lolou itam di bok gu yaatu boo xamanteni ni buñ ko tasaaree da nga ci gis ñeneen ci biir fofu itam da nga ci xam importance waajur bu jigen solo si mu am ci doom ak lim ciy jeexitale daam benn waaye boo xam yaram mi neexul day faral di jeexaat rek waaye boo ko laajee looy jeex danaa la li may jeex sama yaay ko wàcc te du fay loola taxawaay ko waajur rek moo koy wane ndax daan ko ñëw ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara doon ko laaj ni ko ñaanub wàlli ak lëggéeyu ndey lu ci gën sëñ Baara ni ko ku ndeyam lëggéeyu lu tasib wàlli bam di ko ñaanal sëñ Touba tam waxoon ni li fi nekk ci kër gi liggéeyub nday mayewoo waaye duñ ko jox ku ndeyam liggéeyub fi nekk liggéeyub ndey mayewoo waaye duñ ko jox ku ndeyam liggéeyub loolu itam beneen taxawaay la boo xamante ni nii jigéen ñi am nañ ci taxawaay bu mat sëkk ci fàggul seeni doom loo xamante ni nii danañ ci mën a sukkandiku ba mën a dem suñu sukkandikoo ci soxna Fatou Diakhaté mi ñu waxoon léegi danañ ci gis ku ñu wax soxna Sala Jaxate gis ca soxna Marema Jaxate ku ñu wax Fat Seck Albani doon seen waajur bu jigéen soxna Sala Jaxate moom yi moo jur soxna Faati Touré soxna Faati Touré moom yi moo jur Asta Degen ak Xariñaan Asta Degen moo jur soxna Aminta Lo mi jur Sëñ Abdoulaye Jaxate kon loolu dana doy sëkk ci ak bokk soxna Xariñaan moo jur xari gumba jaxate mu jur soxna binta jaxate mu jur sëñ Moustapha Bassirou ak sëñ Mountakha ak sëñ Issa loolu itam doon na doy ci ni kii kat ñii ñooy bokkam kon nga ni kat kon nii mu mel danaa ko nangu ndax ñii nii lañ mel te sëñ Moussa daa waxoon ni yoon wi du yoonu ay at yoonu itte la itte rek moo fi maye dara waaye dama am at sàngam ak nii la déedéet loolu taxu ci maye dara itte rek kon boo amee bokk gi ba pare am yitte ji suñu borom mën na laa dimbali ba loolu mën na mareen ma jaxate mi ci tuddoon léegi moo jur soxna Faati Silla ak soxna Sooda soxna Faati Silla moo jur soxna Absa Jaxate mu jur Mor Mbay Ja mi waajur soxna Xadija mu jur sëñ Musaa Mbàkke Muhammad naka noonu itam soxna soxna si la moo jur Marème Seer mu jox soxna Faati Moor Touré mu jur soxna Faale Mbàkke mu jur sëñ Cheikh Sikap mii moom sëñ Sall ambassadeur kon bokk ku yaatu la koo xamante ne nii suñ ci sukkandikoo mën nañ ni nii ñu mel yaay na te noonu rek lañ war mel seenu bokk kër libaas waxoon naa ko ndax libaas Mapate Aram Sine Sumbur Ndaak Maxtaar Saafura Demba Musi te kër libaas mooy kër suñu Abdoulaye mooy kër soxna moom yi moom Seexul Xadiim te ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk làmbi lislaam ji mën nañ cee sëgg loolu rekk du doy bu ñu demee ci Senaba Gaye mi nga xam ne moo jur aale Senaba danañ ci gis Aram Gaye gis caane Sede ba Gueye moo jur yàlla loo yàlla loo jur Aminta Diop Aminta Diop moo jur Marema Marema jur sëñ Maxtaar Marema muy waajuru sëñ Modibo ba tey Aminta Diop moo jur xarimaam xarimaam jur Aminta Lo Aminta Lo moo jur Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine ba tey da ci gis Penda Guya mu jur Binta Jaxate ak Marema Binta mu jur soxna Mbàkke Jaxate mu jur sëñ Adi Touré ba tey danañ ci gis seen i doomi ci kër Njaga Isa ndax ñooñu Njaga Isa yi seen baay danañ ci gis Modou Maam soxna Faam muy waajuru soxna Faati Modou Maam muy waajuru Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikhul Khadim ñooñu ñëpp doon borom yi taxawaay yu am solo ñu gis ni li lay xamal ni mag gi bok gi fonkon nañ ko te japp nañ seigne Cheikh sina Madiba alayhi ridwanullah mo Moussa nettali li ma daa am benn bi seigne basir wolom neena ma am benn kuma and ci géwél dara ko dosi neena and ak mom dem ci seigne basir neena bima demé neena seigne basir bima ko nuyo waxut ak man yàlla ma tok jàmmante ba bi ak man ak ah, xamna bo tu waji da daa ma tàllal sama loxu mu ñaanal ma nee boobu ab làndar weer laa yor nee bi ma ñëwaatee ba gaari ci buntu kër bi bi may ci sëfoon sëñ basir droite ni ma kay wuy sëñ basir nee ma ne ko ah yéen daal da ngeen di jaawale sëñ basir ne ni kay wuy ku fa la jógee léegi waxuma dara ba door a deesuwaat man ma nee na nga jëm mais bi ma ñëwee fekk mu tok mom képp ne ma la ko jëk wax moy Cheikh Sylla moy ko bàkk mom bo fonto amna fo xamni ko xam bokku koo ma bokkul góor ma faa fekk am na yo yoo xam ko koo ma rek waroon na faa fekk mooy xamal ne mag ni daan nañ sàmm bokk gi bu baax a baax da nañ ko téye tam nañ ko wara a te defo won nañ ñi nga xamanteni ñoom lañ ko sekkal ndax seen Cheikh Mbacke day wax lu am solo dañu asgor manes na ko am waye téye ko mo jafe téye asgor neena asgor am asgor yomb na waye téye ko mo jafe neena asgor dang koy defo diko ko defal te di ko def lo ndax loolu mooy tax nawlante gi feeñ su loolu amul rek am na am na réserve seen diggant te boo ko defee mu yëg boppam te sëñ Moussa nee na amul genn ndomb ak ngëneel bu ñaari yoon te doomu aadama gënewul morom ji lu toll ni mu yëg la te yëgoo loolu mënta la moo tax kenn ci bokk géwél yi ku faram koo xam ne day wax ni man day mën ngaa ne ci yàlla ma ne ci yow ndax jàpp ne yaa ma gën a jege suñu borom maa nga ne ci man ma ne ci yow ndax loxoy kajoor day weesaloo waaye nga ne ci sa bopp ma ne ci yow moom xalaatuma ñaa loolu dox rek koy def nga ne ci sa bopp ma ne ci yow loolu na fi mel na ni jamono moo bari oo gisee sikkante bi bari mooy waa ji day ne ci boppam ba ñëpp xam ne ci boppam la ne mu bëgg gaañi ne ci moom moo tax léegi loolu la ñuy yi loolu la ñu di adressé waaye loolu lépp dara piiw su ko defee na loolu as la woon rek ci bi wane ni mbokkum Sénégal géppam même mbokk googu ma doon wax rek boo demee ci aram kay Kumba Jaay maam Njaay soxna Balla soxna Saynu bu Njaay maam Cheikh kon genn genn bokk la muy bokk gu yaatu goo xamante ni mag ñi nasoon nañ ko peeg ko ba dara ci rax lu dul noona ndax bu ñu xoolee fi mu doon nii yenn jikko yu sew yeeg yenn defin yi ci des am na faneen fu mu bàyyi ko mooy loo jot jël lu la neex jël rek waaye mag ñi doxaloon nañ ko noo xamante ni nii fa tabaarakallaa daara lu dul noonu na caa bañ a tàbb boo gisee sëñ Moussa xel meeg yeewate gi mu ni sama doom joo gis man la mooy ci ci biir ñi mu bokkal doom joo ci tam bu la jur ngeen daje ci biiru bopp moo doon sa maam wala mu doon sa nijaay su ko defee Cheikh Ahmadou Bassirou nag ci ñaari waajur yooyu yi la génn muy sëriñ Maxtaar ma ak soxna Fatimaane muy ñaar ñoo xamante ni nii ci askanu ngor ak diine moom lañ leen xamoon naka jekk ñu tuddee ko maamam muy sëñ Modou Ibra mu ganee àdduna ci ñaxal sëñ Modou Ibra nag daa amoon ay relation ak maam Mor Anta Sali ne boobu ak njëbbal xewagut waaye wëllërante ak nawlante moom lu fi yàgg la naka jëkk wëllëre woowee ak nawlante googee moom la doon doxal diggam ak sëñ Mor Anta ba tax daana jël ay hadiya di ko yónnee sëñ Mor muy diggante bu yàgg bu rafet daan ko jox sëñ mataar itam muy dem di ko yóbbu sëñ mataar di def saa yu yóbboo addiyee yi ci sëñ Mor Anta Sali su noppee sëñ Mor Anta Sali ni ko demal nuyu sa waajee muy Cheikhul Khadim te booba tàmbalegul woote ma nga ca daara ji léegi mujj muy def saa yu ko sëñ Modou Ibra joxatee addiyee yi muy yëpp sëñ Mor Anta Sali dana ko jox dana ni ko lii boo demee joxal ma ko sa waaj nga xam ne kon seenu relation jiitu na yoon wi di taxaw seenu amlante ak seenu ànd jiitu na taxaw ak yoon ba ci ñaxal ñu ni sëñ seet si na ko waaye boobu wóoteegul ba mu ñëwee itam ca ca tool yàlla dal foofu la def ma di dala léegi sëñ Maodo moo wax sëñ Matar ni ko waaw nga wax sa waa ji mu ñëw ci kër ga ñu wax ko sëñ bi mu ni fii baax na fii mooy ab waaye loolu seenub ànd rafet na seenub nawlonte ak bokk gi loolu lépp doon nañ ko jàpp di ko doxal te loola bi yoon wi taxawet daa gën a rafet daa gën a feddiliku dafa gën a dëgër ñu gis ni kon sëñ ba mi ngi gane àdduna ci 1886 moom lañ natt ni ci la gane àdduna ñu jaarale ko fi nga xamante ne nii foofa lañ doon jaarale doomi soxna muy waajal ko ak jàngal ko ba mu xam ay farataam mu jàng alquran ci diggante bu teel ba wattu ko jàng xam-xam yi itam ba peeg ko nga xam ni kon la sëñ Tuubaa doon wax moom dalu ko daam ci doomi kilifa yoo xam ne sëñ bi daf leen a dajale wax leen ni leen ni damaa bëgg ngeen doon seeni baay te bañ a doon seeni baay dama bëgg ngeen doon seeni baay te bañ a doon seeni baay ni leen xam ngeen luy looloo mu ni leen dafa am benn Hafizul quran bu ne ci ab deuk man qur'an lol te sellu selo la ko te beug ko lol bim deme bay waaj tele nak mu def ak teget mu tim lal bu ndaw bi mi teud mu dagg kaamilu alxuraan tek sa yu xel mi nekk ci qur'an day yóotu loxo bi rek ajji jang bu jange ba pare tegat fi kamil neena yalla dogal mu nelaw ñu ni ndax amna dom ñen ñi ni amul dom ñu ni ankay am na doom ji mbeurum lamb la day beure ñu ngi nañ ko wëri ñu wër ci dëkk yu ndaw yu ko wër ba fekk ko mu futti ko di bëgg bari ci mel mbapat ñu woo ko déy ko ni ko sa waajur daa génn àdduna ñu bëggoon nga ñëw ci kër ga mu ànd ak ñoom sol mbubam daal di ñëw ba mu ñëwee toog ca lal ba bàyyam daan toog kooka sol na dàllu bàyyam mu jot ko sol na mbubum bàyyam mu jot ko toog na fa bàyyam daan toog kon doon na na bàyyam waaye ndax doon na bàyyam sëñ Tuubaa nee na mu doon fudd nag loxo ba dal ca kaamil ba kaamil ba tasaaroo mag ñu for ko jox ko ni ko kii kat su wajuri mo ci dan jang boy ba nga lijeenti ko ne mu ne ci kaamil ba ta fexé ba fet xam ben foy wu ci and ak morom ja mu ni koko da don bàyyam way da don bàyyam way doonut bàyyam doonu ko da ko don mu melni mom mi wajal nañ ko waccay wo xamanteni ni lola daru ndax bi mu waree jàng alxuraan saytu nañ ko bam mokal alquran ci bu tel ci mokal mu rafet ci 1886 boobu bi mel na sorewut kon bi muy dal alxuraan fu sorewut ak bi sëriñ bi di génn sëriñ bi dem ca liggéeyu géej ga ba ñibb si 1902 sëriñ bi taxawoo fi waaye sëriñ bi jaar na ñaxal ba mu jógee sànn kontine doxam boobu yi ba jëw daarul man man ba dem gànnaar kon dañuy jàpp ni diggante bi gis boo bi ku sëñ ma di ba gis ca kër waa waajuram gis boobee jeexital na ci xolam loo xamante ni nii am na lum ci bàyyi sëñ bi nag asee la asee moom weñ ku ko jege dana la téye waaye lu bant rëy rëy nag ci wetu asee bi moom asee bi amu ci soxla moo tax mag ñi amatuñ woon sago ci sëñ bi bi señ bi demee gànnaar itam señ Matar wala rewoowee nga xamante ni moom la seqoon ak señ bi ak nawlonte gi ba señ bi may ko loolu ci boppam waxtu wu ci nekk ay xaddiyaam day dem ñu yóbbante xaddiya di yónnee mag ñi di dem gànnaar te gànnaar booba jegewut gànnaar booba yombu ta dem gànnaar booba itam fit dëgg moo fay dem ñu leen di taxaw ñu ne ab bis addiya yi sëñ Matar di yóbbante soxna Fatima ne waajuram wu jigéen joxaale ko ci ñaari dërëm ni nañ ko ko joxal sëñ ma Madiba bañ dikkee jox ko ñaari dërëm yooyee xelam nekkut ci jëfandikoo ko ak la gànnaar di metti metti la tumuranke koy bari bari bari xelam ci jëfandikoo ñaari dërëm yooyu xel mi mooy jox ko sëriñ bi rek mooy moom ci ci la nekk te gànnaar nag yombul ndax toll na jamono boo xamante ni benn saakum njaxnaat muy pepp mu xonq mii nga xamante fi mu doon ku ko am ay fas nga koy xonte wala ay xar moo fa ne newoon nga xamante saa yu waxtu lekk jotee kenn ku ci ne benn ngëpp nga cay am ak kubéeru sàll ak ndox ak dunji xorom waaye téewul mag ñu toog fa seere mar wu tar moo fa am am na genn góor gu ñuy wax sëñ Ibrahima Samb ba mu demee gànnaar ba ñëw daa wax ay bokkam ay ay ni leen képp ku fi amati doom bala ñu ko may ndox na weer wa del si ci déwén sa ndax li fekk sañ Bàmba nga gànnaar ñu di ko fekki te gànnaar góor gu ragalu mar du fa dem kon gis ni gànnaar neexutul ñaari dërëm yooyu dafa fekk yitte booba xaalis bariwu fa de ndax fekk na gabriel bi nga xamante ne ci la ñuy rootal sëñ bi ndox moom jàpp gabriel bi dafa bënn sëñ bi doon ko ñaw lu jox ko ku ñu wax sëñ moo Guèye mu yóbbu ko ca naar ba koy ñaw naar bi ne ko bu ñu amul ñaari tànk de su ko ñaw ñu delloo si sëñ bi ne kon nañ ko teg foofu ba lu ko mën a yéwénal ñëw fi sëñ Madiba bi ko joxee ñaari dërëm yi bi mu jemee jub sëñ bi teggin yi ñu jaaxloon teg sëñ bi dañuy yëglu sëñ bi ni ko kooku mu ni ko mën a ahmadi mu ni ko bismillah mu ñëw joxoñ ko ñaari dërëm yi mu ni ko tegal ci suuf mu teg ci der bi sëñ bi ni ko ndax dajee woo fekk kenn mu ni ko ankay am na ko ma dajal de sëñ Modou Guèye sëñ bi ni ko wol ko mu sëñ Modou Guèye moom it ni ko kay sëñ bi bi di bi ñëwee taxaw sëñ bi sëñ bi ni ko moo Guèye lu naar bi wax mu ni ko naar bi nee na buñ amut ñaari dërëm gabrier bi kenn du ko ñëw mu ni ko te gabrier bi buñ ko ñëwut ndox du am sëñ moo Guèye ni ko waaw sëñ bi ni ko te bu ndox amut kenn du jàpp sëñ bi ni ko sëñ Modou Gueye ni ko waaw mu ni ko te ku jàpp doo jaamu yàlla sëñ bi ni ko sëñ Modou ni ko waaw mu ni ko te ku jaamuwut yàlla dem sawara sëñ Modou Gueye ni ko waaw sëñ Tuubaa ni ko foofu doy naa yem daal ko joxoon ñaari dërëm yooyu sëñ Madiba joxe woon kon nga gis ni loola taxawaay la bu am solo boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel ki diggam ak sëñ bi ñu gis ni itam ni ñu gis ni foofu tànnaar itam

dina ci jënd mooy jënd boo xamante ni loo sonn sonn sonn boo yàlla ci moom day yëngu faj ko te lu mu bëgg a bokk rek la mu bëgg sëñ Modou Moussa bis muy wax ak sëñ ko xanaa ñu ni ko Mouhamadou mu ni ko man itam Mouhamadou laa tudd waaye li ma sëñ bi woo leen leen ci ab tokkoor ni leen damaa bëgg ngeen dem ca tokkoor ba benn bis bu ngeen fa xëy defal naa leen ma jaw paxa daan wax daan wax ni gonek sëñ touba gu wacc mbootu mag mu faso toroxo koy lu mbootu tay mag lañ ñoo xamanteni ni nii sëñ bee taxaw ba nopi ci ñom bi sëñ bi joge gannar ci la and ndax deerum sëñ bi nek gannar mi ngi gannar mu and ak bi yeen ci yeen jolof gog yi gëna tarati ndax ak tarbiya la woon tarbiya daa néexut ci bakkan boo gisee mag ñi reg réglé li ko war a mooy fi ñu leen jaarale te loolu mooy li gën a jafe fi mu doon nii reg réglé cëpp cëpp ceeg bajante bi lépp li ko war ab reggaay rek ko waral mag ñi nag dañoo reggoon ba paree pare réglé ndax fi mu toll nii buntu kër boo fi dem dal ya bari ci buntu kër ba ñuy buuxante ka fa ka ca biir ka ca biir yoonam nekku ci bu ci yëgee dara rek dus gor ka ko lëggéeyang ci armée la tëdd foo fi dem rek nag laa fi mu toll nii foo fi dem ci yoonu Mouride di raj raj loo ko buuxante ka ca biir bu ci yëgee dara gorewul ña ko lëggee ñoo ngi ci armée li tëdd kenn waru leen a fàtte ñooñ lañ waroon a sa gone yi ñooñ lañ leen waroon a jàngal mais waruñu leen wan sa bopp loo xam ne sa sa ngóor a mayu la ko sa yafus du la ko xañ loolu benn manoore boo ci war a mane rek amul ndax te woo ca kenn lu sotti la rek kon mag ñi mat nañoo bàyyi xel bu baax a baax bi nga xamante ni nii ñëw nañ ci yéen itam tarbiya ga daa continuer sëñ Moussa ko boo demee naan bàmbaal nga leen dama dégg laa laaj moom dangaa wut si koo xamante ni nii dangay bëgg mu amul jënd la te gis naa jënd ni seetu boo xamante ni loolu liggéey 是，我这个目的就是。 saya kalau punya hati ini satu tadi dan punya hati saya yang bisa ini yang itu sampai orang yang tidak mungkin tidak mungkin yang itu berapa itu semua yang mungkin itu bisa berapa berkait dan berapa Nombor

atte yooyu ñu dem bëri xam ne ñuy dox di dox di dox dox ba mu yàgg sëñ Moussa tële sëñ Fallu boot ñuy dem ba mu Fallu ñu wut karu garab gu gu sedd ñu wàcce ko dañ ko garab garab di wàcc fuñ ko tëral ne bi ñu ñax mu waw mi ab xaal génn ci biir ñax ñu jàmb xaal ba jox ko ci mu naan ndax mar rek nee na la jël ci xaal ba noonu jariñoo

ko Mbàkke mu ne ko fu ngeen ko ni ko mu ne ko Mbàkke fu ngeen hmm. kon loolu dafay xamal ni rek wàccuwaay ak defoo xamante ni moom la leen sëñ bi def loo jógul ak moom ñoo bokk benn waajur sëriñ bi dëkkoo ko damay wax ne sëñ Tuubaa kum nawloo du jël ci sa deret loolu bu baax ci sëriñ bi ni mu doon dunde ak mag ñi mooy nawloonte gi nawloonte gi loolu moo ëpp solo damay wax ni sëñ Tuubaa du wilaaya gee jikko yi moo ko may li ndax su fekkonté wilaya gi rek la incarné doomi soxna yi du ñëw ceddo yi jikko ji ci la sangé ñëpp jikko nak day lu am solo ci nit ndax dañ koy jiit di ko suuxat looloo ko fay taxa sax waaye deret mayewoo des na ko sentu ci deret nak motax wala fi wax ni deret du fen waye borom man nako wor deret du fen waye man nako wor moy leg leg nga gis ko xam dañ na la doomi diiw nga nga dar sa gimiñ ni doomi diw nan la mën a mel mel nii fekk deret ja soppikuwul waaye boroom a ko wor mooy daa yor yeneen jikko yoo xamante ni da koo intégré ci boppam tax mu dox waneen doxin wu wuuteeg ñañ ko xamee nga gis ni diggante boobu yi dëkkut ba bi sëriñ bi ñibbusee doxinu sëñ bi di ba woowee delluwut gannaaw te li ko jiitu sax ne am na benn bis ci kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra di dox ba mu yàgg mu seen tund wa seen kuy ñëw yor yorom naawal takk digg la day seex bi la taxaw di ma xool ba mu yàgg mu ne ah suñu laa jàmm kay ñëw ku mu doon ñu ni ko ah kee de Madiba mu ne ah Madiba nga xam ne kon pas-pasam yitteem mooy mag ñi nga xamante ni ñoo ko jiituwoon ci sëñ bi fi ñu teg seen tànk foofu la teg seen tànk te loolu mooy li sëñ Bay Fallou daan wax sëñ Bay Fallou bu ñu daan nett li njàmbaaruk Cheikh Ibra danaan su ma ko fekkoon pën day bari mais bu ma fekkoon Ibra Fall pën day bari waaye du ma waaye course boo fekkewul nag mënoo caa jël pee waaye daan wax ni course bii Mbay Fallou fekk moom bëggu ci deuxième ñëpp it loolu boobu engagement mooy dañoo kenn ku ci ne naa waroon ne ma fekkee moom du ci jël deuxième première rek la te mag ñi foofu lañu nekkoon moo tax fas yéene féete woon sëñ bi mu fas yéene taxaw foofa siin sëñ Moussa fa waroon a dem dañ ko sama liggéey la bokk waaye dama gal ma bëgg nga demal ma fa mag ñi ku wecci wut seen jëmm duñ la dugg saa yu xeebee sa jikko wala saw saw doxalin seeni bagage doo ci dugg am na kuñ doon nettali sëñ Moussa naa ko moom de ni la bëggee waaye xel maa gàtt sëñ Moussa ni leen loolu daa doyut sikk xel mu gàtt dooy na sëkk sikk nga gis ni kon ci 1928 jàpp 29 booba nag siin neexut a dem ndax ña fa ne màndi nañ ca lañ ne te wax dëgg yàlla am na ci njaboot gi ku fa jëkk a dem koo xam ne ba mu fa demee ko julliloo dañ ba mu dañ ñu ko tonni ko moom wax dëkk dañu fii moom neexut a ne julli la fa mu tonni julli ga daal ni fii moom neexut ba mu fa demee moom it fekk ba jullee dañ ñu ko tonni ko mu tonni ko ëmb ko waaye mu xam ne mission du loolu mission mooy ñii muy jàkkaarlool jëmm yii muy jàkkaarlool ñoom la bëgg a dugal ci diine loolu mooy liggéeyam wut suuf sum bayee yóbbuwu ko fa woon bu doon loolu rek kajoor gi mu dëkk fi ne mënu koo jeexal waaye ab mission la amoon mooy foofa daa bokk ci barab bi sëñ bi te lislaam war faa tàgg te mu lëndëm këriis nga xamante ni nii la sëñ Touba waxoon sëñ Aliou Diouf ci làmbaay loola di ko si yàlla jub ba mu déggee wax sëñ Tuubaa jébb ni ko damaa bëgg yóbbu lislaam fële ci làmbaay sëñ bi la ni ko de yaa ngi mel ni ku bëgg a taal ci digg géej a taal ci digg géej ak ñu ko coono waaye dees na la dimbali ba sëñ Tuubaa dimbalee làmbaay soppi ko sëñ dindi mi itam loolu boobu mission la taxaw ca fee mu doon ne te yëkkatiwul ja amul kenn ku mën a wax ni sëñ dindi ma xañ bàyyi wala moma xagn borom keur wala sama sama dom je ci xare ba sañ dindi wote won ci la dem te xare manon na fa am nak waye ndëndëm yi ak pak ak pajam gi ak bari bi ku sun borom ni nga xamni ne la ko muuri ba kenn ci suko ke la noyel ci motax amna benen na bu ko waxon ni mabba da jóom da gis maji mu defee ni mabba la ndeke ma diba la loola loo xam na ko sëñ ne yoo xam ne lu yak parce que seigne nañ jox lim daj ci seen ngir bëgg na la duggal ci lislam ñaata bakkan la fa tour ñaata xare la fa taal te taxul ki ñew ci méthode bo xamanteni ni méthode bu efficace la bo xamanteni ni da naka ak takub coono mu duggal lislam seen nga xamni tan fu mëna ñewit ci wati sa moowi rek nga mëna sukkandiku ba man fa def la nga loolu taxaway bu am solo mu liggéey ba itam liggéey bu am solo ndax jamono yooyu yi mu fay dem daa fekk sëñ Moussa engagé liggéey yoonu saxaar bi ak liggéey jumaa ji waxoon ko sëñ di ba bay na fa juróom-ñaar téeméeri barigo ci gerte yoo xamante ni xaalis boobee mu jaay bokk na ci li sëñ saa tàmbalee liggéey jumaa ji te liggéey bi di sémb bo xamanteni ni mom la mouride yi sagoo même mouride yi jébbu lu barki démb rek ko ci ni 1 milliard nga génn jumaa ci sa yoon sakkantuma nak ak nga xamanteni ni lañ am lepp ci la dem muy liggéey bu am ci digënté yu jafé la ko mag ñi dem ndax digënté rag ak ram ak ràmm année des 30 crise ku jàng histoire jàng nga xarnu musaaka bi ku ko jàng xam nga ko jafé jafe yi xew ci aduna tar bi xiif ram ràmm beeg rafle bi kenn amut loo lekk sëñ Moussa xoti naan bi na xotil ko seigne touba ñom ñi ñuy ay gor dir ci gannaawum fasiyene duñ delu gannaaw mukk te ndam amut am ci ño xamni ño nga fas ci seen taxaw di seetaan am ño xamni wan nañ ko gannaaw bam yekko waye mag ñi jaay seen jaay seenub juddu jaay seen gor ngir taxawu doomi seigne bamba ji mu am ndam soxlaatuñ mbub soxlaatuñ dal lu ñu bay ci gerte ab sima lay jar bu nawet diké ñuy top déeg yi di ngacc di dajalé ndox su nor bi diké ñu jaay gerte ga jënd sima tambalé tabax su xéer yi jeexee ñuy dem ndox ko yanu ji xéer bop lu mu reuy rëy wenn xeer lay yanu ñuy yanu di indi di tibbi suuf di indi boole kook seenu xiif ak seenu mar te booba am nañ luñ lek ku ne mag ñi xamuñu diine ya xamu diine waye li leen diine jaral kenn li leen diina jaral jumaa ji mag ñi ko doon tabax li ñu daj ku toog ba nëga ni nga bëgg a dal ci seen kaw yaa xamut diine waaye ñoom li leen diina jaral diina jaralu ko kenn diine tax na leen a fande diine tax na leen a mar diine tax na leen a rafle diine tax na leen a fanaan àll soof dagg lawtanuk caxan teg ci seen tànk takk ba mu dëgër di dox muy rocc ko ba set ñu daggaat ma neen te duñ toog am ci ñoo xamante ni amuñuy séer waaye lañ yor ko néew danañ danañ ko suturaale seen bopp ba mën a yanu ji am ñoo xamante ni amuñu woon lu ñu lekk te boobu ñu ngi jaay gerte di ko jënd ciment ki jaay gerte jënd ciment am na lu jënde lu lekk mais dañ koo soxlawut seen bët ci liggéey sëñ Tuubaa bii rek la ne woon lu tax doomi sëñ Tuubaa ji am ndam moo tax nga xam ni mag ñi duñu ku ndaw saa yoo tuddee sëñ Moussa rek tàggale nga leen lan may sëñ Moussa ndam moo leen may ndam ndax buñ ko waroon baa ñu dellu gannaaw lim sumb du àgg moo tax moom itam muy gor soo xamante ni nii ku ko ni cooy mën la gel dajale na leen ni leen sant naa leen bu baax a baax ni leen li tax ma sant leen mooy yéen a yor seen kër yor saa kër may jaamu yàlla ngeen di jaamu yàlla kon li tax ngeen def ko xam naa ko muy sëriñ bi sëriñ bi rek tax ngeen def te koo kii nag lay tax ngeen jariñu ci ëppale mu leen ko te mooy sopp ko ak wóolu ko ndax moo tax ñu féete ko fi ñu ko féete nga gis ni itam ni taxu leen toog taxu leen a noppalu ginnaaw bi la sañ ci Daaru Rahman ci 1930 jàpp 31 saadatu 1939 kon nga gis ni mag ñi bëgg wéetaay ak daw responsabilité taxul woon ñu nooñ àll bi dañoo bëggoon fu ñaqe lu lew luñ mën a dunde ak fuñ mën a yare seenu njaboot ngir bañ a jaxasoo ak nax-nax yi nga xamante ni moom la àdduna indi tem nekk ci dëkk yu mag li lay xamal ni wóote na ñoom mag ñi ak taxawaay mooy nun fi ni ku ci lëjë ca taaxee ya léegi da nga naan xaaral ma daw ci àll ba noppalu mag ñi dañ daan wax maa ngi dem ci àll ba lëggéey lu àll bi noppaloo kaay buñ lëjee ci taax yi rek la ñuy daw ci àll bi boo lëjëlee ba xajatoo ci taax nga ni maa ngi daw ci àll ba noppalu mag ñi ci àll ba lañ daan lëggéeyee ay taax daw doon seen jëmukaay ndax sëñ bi daf leen daan wax ni leen ab sëriñ ci ay ay taax mook bukki ciy taax yam yem bukki bu yàgg ciy taax léegi mu am ci boppam lu ko naqari bukki bi ne ciy taax saa yu gone yi ni bukki baa ngi bukki baa ngi léegi mu am ci boppam lu ko naqari même gaynde ba mu demee ca taax yàlla ñàkk valeur waaye ba mu ne ca àll ba wet goo ko dégg góor dëgg koy dañ kumpa waye bimu démé ci tax taax ya jigen jigéen ñi sax dañ koy sétal lolo taxoon sëñ bi doon leen yar ci demin wow nga gis ni kon danañ jànge ci jëmm ci ñu doon waxtaane njàmbaar gi ne ci moom ndax fukki at ak ñaar juróom-ñaar nga dem gànnaar loolu kenn ku ne xam na ni ci diggante bu teel la ci gànnaar goo xam ne doo am loo war sa tànk lay yóbbu ci gànnaar goo xam ne danga xiif doo lekk danga mar doo naan te doo noppalu doo àttandiku ndax ki la fi indi moom dundewut noona te bëgg nga cër ni ñëpp boo xamante ni bu ëllëgee bu ñëpp di séddu kenn du la ëppub cër moo tax ñu gis ni itam ni bi la ñeent fukki at ak ñaar bi muy dem siin ñeent fukki at ak ñaar la xoolal fi mu toll ndawul ñeent fukki at ak ñaar lu mu man lan la man sancub dëkk ni mu jafee foo xam ne da ngay ñorox ba ba gis ni fii baax na nga àll ñax ma fanaan boo xëyee door a wut néeg boo dugg war a wut loo naan war a wut loo lekk bàyyi fa sa njaboot ba doon jën ni tey yoo xamante ne ni kenn ku ci ne mën ngaa dagg paas dem fa mbala nga jël tax mu yóbbu la fa nga del siwaat loolu jàmbaar lañ seen jàmbaar googee mat naa roy ci fi jamono tollu nga xamni legui da ngay gis magum juroom ben fukkat mo xamni ci ay nal rek la taxaw maam sama projet yi may nal bu bu bu ak jang te projet yi ko dole jàmbur la ci yaaka nga gis ni mag ñi fekkuñu fi ay moyens mais dañoo créer ay moyens yu ñu liggéeyee bi mi sañ ci Darou Rahman 4300 ans la saadatu gi mujj sañ 42 ans 52 ans juroom fukkat ak ñaar ñun ñu ci bari suñu at weesu na foofu te taxagul ñu man dara kon da nga gis ni yi taxaway lañ yo xamanteni ni mat nañoo bayyi xel bu baax baax te ak li nga xamanteni mom la and ak seigne Moussa lepp teewul bi seigne Cheikh ñewé da melni duuy doora tambali bi seigne Cheikh ñewé da melni kuy doora tambali dafa mel ni moom daje wuutu woon ak sëñ Tuubaa daje wuutu woon ak sëñ Moussa te am na ak sëñ Tuubaa ñaar fukki at ak juróom moo tax sax léeg-léeg nga dégg moom lañ mujj seexal foo koy layale ku sëñ gërëm ci 1912 ku demoon gànnaar ca 1903 nekk fa ñëpp di mu daj ko fa jógee fa ànd ak moom ñëw ca yéen diggante boobu bépp mu ànd ko sëñ bi ñaar fukki at ak juróom sëñ bi at yi mu nekk njaareem ñu ni moom la mujjee seet loolu fu ko histoire di layale fan lañ koy bind fan lañ koy jële boobu riwaaya danoo war a gëstu ji mag ñi ba xam leen dañ leen a war a gëstu ji ñoonu jaboote nag jege nañ leen ci deret waaye dañu leen a sori ci pas-pas mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga xam ne diggante bi nga xamante ni ni moom la fi sëñ Cheikh nekk digënté bobu daa mel ni kuy doora tambali loolu mo lay xamal ne la mag ñi xër gi ñu xër ci lu baax ak tagat gi ñu leen ci tagat ci xamal ne ëlëk dara du fa jeex ndax sëñ Tuubaa mi leen jaboté daf leen daan wax ni na ngeen wàcc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelawi ba dem ci bammel su ngeen démé ci bammel lu ngeen bëgg tëdd da ngeen ko tëdd ab traay nga ci kanam bo xamanteni ni da ngeen tëdd ba tëdd lu ngeen tëdd mo taxon mag ñi ñoo tala nelaw ñoo tala attandiku non nak ku ci guddé tëdd mu ci say bëccëk mbaa nga bind lu ci ordonnance nam fim doni dama am maladie ñak nelaw kañ ngay dem bi xaddiril kad taksibul maali faman talaba al ula sahara layali tarumul majd wa tanamu laylan ya ngi bëgg ci sun borom ba paré bëgg fasiyene nelaw rek seigne touba neena khat atamta nafsaka fil muhaali lolo taxon mag ñi dawñu ñu seigne madiba kuko min xamni ko na ndoxum kesse ndox mu ñuul kese kese faaw mu am lu mu ca rax ñi ko miin xam ko xam nañu daawul naan ndox mu ñuulum kese te loolu dara war lu ko lu dul bàyyi xel bàyyi xel Sëñ Tuubaa mi nga xamante ni moo leen daan soññi sëñ bi daf leen daan wax ni leen ndoxum kese ku koy naan boo dee dem sawara ndox mu ñuul ndax day funuxali yàq te sa yàq bu funuxee nga tayal ci jaamu yàlla Sëñ Tuubaa ba xam dañ koy firi te ku tayal ci jaamu yàlla doo jaamu yàlla boo jaamul yàlla booy dee dem sawara motax tax ñi bokk ci yoon yi te bëgg wayfal jaamu yalla amul fenn fuñ ko tek mëne su ko layal señ bi santani wu wu ko wayfal jaamu yalla déedéet bokul ci yoon nga gis ni digënté bobu mu and ak señ Cheikh nga xamni luñ fi am jox nañ ko lu mu fi sémb moog ñooma ko loolu pas-pas bu dëgër ak yitte ju kawe moom lay wane ndax mënoon na ni ñoo ko mag suñ dooma te wax nañ dëgg seen dooma mënoon nañ ni maamam la ñu àndal mënoon nañ itam baayam la ñu àndal waaye yooyu yëpp waxuñu ko dañoo xam ne rek wutukaayu lu baax la te lu baax du doy te ni fekk ñoo ngi fi te demaguñ yooyu moo tax mag ñi daan wax ni nawetub daaw ak ndoxam mu bari soo ko nawee ba tax nga xeeb nawetub ren bi ba ni doo bay doo góob mënta nekk moo tax nga gis ni mag gis-gis bu sori sori lañ am bi sëñ Moussa nelawee te seigne Cheikh dem taif seigne Bay Fallo bim ko fa jëkke fek né bi déwé nuyu ko ba gennat da taxaw ci buntu buntu kër gi

ba ci biñ yóbboo sëñ Mbàkke Mouhamed Daaru Rahman mu fay jàng alxuraan bu waree soos daal sëñ ñi ne moo koy soosal daal ndax foofee ca penc ma lay toog ni jigéen ñi nañ indi ci nii cin ni yëpp ñu indi ko mu wër ko mu soos daal ji ba mu kii jox ko mu dem manoon na ko caa bañ a fekk waaye danay wan rek ni loolu baax dara jëru cee xeeb foo ko mën a amee rek dugal fa sa loxo ndax du doy ëllëg la jëm te ëllëg dara du fa doy dara dara du fa doy sëñ Moussa mos na ko wax sëñ Xaadim Jigal fii ci biir kër gi sëñ Xaadim Jigal nee na dama koo tiim di ko bës nee ba mu yàgg sëñ Modou yëkkati boppam ni ma xaadim ma ni ko mbàkke mu ne ma mbaa bokkoo ci ñi wax at ma ma wàccee am ñoo xam ne xasee wàcc ci daara ji dituñu fas xànc ak morom ji waaw ah wax ñun la man kay fi mu ni pare naaj mu ni ko xaadim mbaa bokkoo ci taalibe yi wax at ma ma wàcce mu ni ko ah déedéet nee sëñ Moussa ni ko xaadim mu ni ko mbàkke mu ni ko ab taalibe du wàcc ab taalibe day wàccee cig jaag tàbbi àjjana waaye ab taalibe du wàcc nee fekk sëñ Modou yor kurus sëñ Modou yëkkati kurusam ni ko xaadim mu ni ko mbàkke mu ni ko li ab taalibe mën a liggéeylu suñu borom toll na ni peru kurus yi ni ko xaadim man day wàccaguma moo tax sëñ Ousmane Niang da daan wax ni ab bi li fekk bu ñu wulee mbuusum jinax jox ko mu attan ko saa yu ñu wootee jàppal ni sa pajuk aajo ca woote boobee la ne moo tax mag ñu mosuñu ko seetaan musuñoo des ginnaaw waaye nag ak loolu lépp mu am jikko yu am solo yu ne ci ñoom yoo xam ne mat naa bàyyi xel te di ko muy ak woyof ak garaat yi yi ñu takk ci sunu borom ak mbooloo mu bari mépp dara mosu leen cee jay dara mosu leen cee yëngal waxtu wu ci nekk dañuy delloo nit ñi ci yàlla bàyyi jibi ja mosu nettali rahmatullahi ali nee na boo ñoo gis daal dem ci àll bi dajal lu ma téeméeri na ni naat yoo xam dañ koo for ne ñoom dong yépp ñu maase ci ni lii daal sëñ ma diba rek lañ ko yéene moom lañ koy jox ne bi ñu indee jox ko ko ne bi mu ko tiimee nee na sama xel sëñ Madiba nee na li sama xel jëkk dem mooy ñii nga xamante ni ay gor lañ ñu jox ma leen ak ne naat ni mu baaxee ci nit ak ni mu neexee. da dajale rek dajaleel foo xamante ne nii dara du fa doy foo xamante ne nii àgguñ fa waaye nag ñoom sens bi ñu am mooy ñañ nekkaloon dañ daan wax ak ñoom dañ daan wax ak ñoom bu baax a baax mooy la tàmbale ci Sëñ Tuubaa daf daan wax ak ñoom bu baax a baax di leen soññ di leen naat ci ñu dëf lu baax te dëkk ca te sax ca ndax moo leen di may jàmm bu ëllëgee ñoom it ñu gëm loola nur ca ray ci seen bop musuñu ko foyé bu dé mesin ci sëñ bee leen cay man bu dé kobegu, alcorane ma sëñ bee leen cay man bu dé jangum qasida ma moo talif ba pare gën leen ko bëgg bu dé joxé itam lu da dana ko wat ci yàlla boole ko di leen soññe ko ku nekk ak do ya fous mag xamu xamuñoo nelaw ndax waxtu wu ci ne mi ngi leen di dajalé di leen te kenn ku ci ne bëgg sa yu woté nga fekk motax xamu nelaw sëñ Blaat wax na ko nee na tëri moom gannaaw sëñ Tuubaa lañ ko xam maa ngi tëri baat boobu gannaaw sëñ bi la xew ci yoon wi waaye mosuñu maag ñi mosuñu koo xam soññi gaa yi bañ dem nga toog ca kër gi mosu daal sëñ yu Mbacke wax na ko nee na yoon wi xamut dem leen liggéeyi acca leen nu liggéeyi la xam acca leen nu liggéeyi loolu la xam muy bindu yu bari ñu mën cee jàng itam seenug yaatu mag ñi seenug yaatu ak seenug mën a muñ seenu tolérance tolérance bi ñu am nga xam ne moo tax ñu mën a jaboote léegi daanaka fi ñu doon nii koo ni cooy mën la gel léegi da gis sëriñ buy mere taalibeem da gis sëriñ bu génn di wax taalibeem lu kenn mënta dégg te sëriñ Cheikh Mbacke daa waxoon ni koo mënta mucc ayibam matoo ko kilifa nit boo mënta muñ ay ayibam matoo ko kilifa moo taxoon mag ñi doon ku yaatu dënn koo xam ne mën nañoo encaisser waaye danañ fexe ba teg la ci yow ndax loolu rek lañ soxla woon liñ soxla woon mooy teg la ci aw yoon képp lañ soxla woon moo tax sëñ Fallou daan wax ni ñaaral ñu fi bàyyee xaj ak xajoo xaj seeni bon bon ak xajoo seeni bang-bang nee ñaar yooyu rek noonu fi bàyyi te loolu mooy yarub sëñ Tuubaa mag ñi daawuñu jóg ci teg nit ñi ci aw yoon ndax ki leen yar loolu la leen tamaloon sëñ Moussa daf leen daan wax ni leen képp ku ngeen àndal te mën leen a tax mu jaamu yàlla mën leen a tax mu lëggeel yàlla na ngeen teel a génn ci moom su ngeen ko defut bis dana ñëw ngeen ni siiw a tàggoog moom mu taleen tëj te loolu dana ñëw soreetut kenn ku ne xam na ni dëgmal nañ ko te duñ wan ñu ndax li fi jële ñi woon ci suñ kanam doonu fi bàyyi ay gone lañu woon doon yu ñu daan yónni léegi nooy yónnee la indi loola nag mooy indi la ca des kenn ku ci dañ la daan wax ne kay demal ci sa bay diw ni ko nangam kay demal ci léegi yaw yaay tok nan kay dem dem nangam ak nangam la fa jëlee ñoñu nak do la fi ba te mag ñu lool lañ xamoon ki ñu àndaloon itam lool dong la leen daan wat sëñ tubaa rek lañ fi daan gis ci kilifa go xamne day tibbu suuf di xeppe jaamu ji leen yalla seen borom irji'u ila rabbikum léegi kay ko xëpp suuf mu foñ la ko ci xëpp suuf rek bu sawe yalla bu génnee lamuy wax ngay taxaw dee tuddeel si ba tax na fi mu doon ñu ci bari dañ leena bayyi legi ci seenu doxine te mag ñi ñu and ak ñoy mag ñi sa yo joomé dañ lay corriger parce que lool lañ leen bolé won ab talibé buñ la bolé ak mom sa yu joomé ne ko duni ku yar do yërëm waye su fekente ni am complexe ci lum la wara jariñ wala lum la wara indil wala limu la jox legi tax na wax nangam yang koy gañ kon ci si ñoo nax talibé waye talibé waru ñoo jey jay ci dan no boole ci tol bi ñu ando ngir jàppalante mag ñi loolu lañ xamoon foofa lañ ne woon mag ñi mosuñoo nax kenn musuñoo exploité kenn li ngay indi dañ koy booleek li ñu yor wan la fañ koy def ndax sëñ Tuubaa daf daan wax ni taalibe yi liñ leen di jox fu ngeen ko def foofa loolu mooy jeexital ci seen xol fu ngeen ko def rek mooy jeexital ci seen xol moo tax léegi gis nga jamono ni mu demee koo gis danaa la fi ñu nii kër laa bëgg wala oto wala jonga ñu ne ci biir wala compte banque Sëriñ moom lam leen dénkoon mooy lu fi ndikk na ngeen ko def ca soxla su fa ne loo ci jaamu yàlla yi kon gis nañ ni woyof ak muñ ak yaatu ak tabe jikko yu ñu war a roy la ci ci mag ñi seen ngor jikko yu ñu war a roy la ci ñoom xàmmewuñ woon ku am ak ku ñàkk am du leen boole kenn ñàkk itam du leen tàggale ki ñu war a àndal parce que néew doole yàqul ab ànd léegi ku new doole yaa tooñ yaay mucc agsi wala doo gisee boo ñëwee ñun la sëñ bi daa tëju benn waaye ci buntu gannaaw ba lañ koy jaarale mu siyaari dem yoonam yow man nga fee yendu ci ëtt bi doo gisee te ngeen bokk lenn lu ngeen di wut ngeen bokk lenn lu ngeen joxe muy sa jëmm a gën a rëy jëmm ma gën a rëy mu joxe ko waaye yaakaar nañ ci moom beneen intérêt bu dul boobu loolu du doxinu yoon wi wala ñu ñëw wax la soxla su baree bari jox la tuuti soxla sa dara du ci dëgg waaye doo ca weddi dara ndax liñ la jox dam talib yo xam dañu mësa joggé a ngab seen addiyee fi lañ jawal ci seigne Moussa jox ko addiyee ba paré wax ko ni ko légui dañu bëgg aljana té ragal sawara talib yi léeg bala ñu la jox dar dañ lay tagub sars ba paré jox la seigne yëf ñu jox la lu am solo ték la lu dis gan seigne Moussa dañ ko koo ni da ngeen ni dem jaarim ku baax nga fa bu ngeen démé ngeen wax ko ni mu ngeen mako wax bañ démé jaarim ñu nuyu seigne touba jox ko seen addiyee ba paré wax ko lol seigne bi dañ leen fala ngaat mbos ga ni leen tëye leen seen lii tëye leen seen lii ni leen àjjana jooju yi ngeen wax ku leen mënta tax a jaamu yàlla mën leen caa tax dugg sawara soos yi ngeen wax ku leen mënta tee mooy yàlla mën leen cee tee dugg jóg leen dem ni leen te lii ma leen wax nag yéen ak Modou Moussa moom yéen a ca yem mag ñi ne ñu gis ni itam ni mag ñi ku dégg la ñu woon ku dégg ndigal dégg mooy ndigal yi nga xamante ni moom la suñu borom santaane sëñ Tuubaa doon leen ko sax ñiñ fi fekk doon leen ko fàttali lolou moy ndigal buñ ne ndigal moy ndigalul sun borom touba indi wu fi lu indi wu fi lu bees lepp ci tek moy yoon wi sallallahu alaihi wasallam sallam daanoon wo woowee la bale ba mu set mo woowaat gaa ñi ne leen yoon waa ngi ndigal yoy rek la leen fàttali waaye daana wax mag ñi ni leen ñi ngeen andal de leen leen digal ngir yalla su ngeen leen digalee ngir yalla yalla not leen ñu nang waye su ngeen leen digalee ngir seen bakkan seen bakkan lànk sa yo joxe ndigal ñang ko jox taxawoon di la xol setatal sa bop da am ben talib bo xamni da daam dafa bëgg seigne Cheikh ba amu ci sago am ben talib bu ko bëgg def ab ko dik ne ko seigne Cheikh neena nga jox ma sa fasuy waji ne ko bo demé ne ko lank na mu ne ko ah, seigne Cheikh ko wax mu ne ko ah, bo demé ne ko lank na waji dem dem xamni waji waa mu ne ko dama la non nax rek wa no xamé ni dama lay nax mu ne ko suko seigne Cheikh waxon dana tagat sa xol bi bam nangu bala nga ñew bala nga ñew lay tagat sa xol bi bam nangu motax sa yo waxe gaay ñu dit ditar rek bay bo nga sétal li yoon mag ñi fofu lañ dundu gu barkel layam. am dundu gu tege ci yoon la am te suñu jëlé suñu jéego nattu ko ci seen jéego ya suñ borom dana nu dimbali ba fiñu jaar pak du fa ne ndax yoon wi xal nañ ko motax lélé nga dégg ko na la yoon wi da am problème yoon wi amul problème sa na am problème pour jaar ci yoon wi mais yoon wi amul benn problème yoon wi ag na borom xal na ko mu ag jëm mag ñi fofu rek lañ muy wayef toy ba pare dis gannu ci suñ borom gëm sëñ bi ba boole wuñ ko dara ndax sëñ bi da leen a wan lu wér waggar sëñ bi waggar ak njabootam bàyyi leen xel bu baax a baax soxna dabam sëñ Moussa jaar na jaar na jaar na ndam sëñ Mat sing ri jité ko takusan jité sëñ sëñ sëñ tindi timis te xam nañu jigen du jité ci sharia waye jëmmi sëñ bi lañuy gis gisuñu jigen dëgg gisuñu jigen dëgg muy taxaway yu am solo yo xamanteni ni mat naa xel bu baax baax ci sammu seen nono li nga xamanteni mom la fi bay nañu bayyi xel nono li nga xamanteni ni mom la fi magi bay ak yoon wi nga xamanteni ni mom lañ jaaro muy yoon wu leer nañu wo xamanteni dara ci ampo la lalu ci fenn dara ci ay naxate wala ay tirikaas jaaru ci fenn ngeum ak pas-pas bu deugar lañ ko don defé motax li fi nek sun borom defal leen te li fi nek seenu liggéey kanam lay jëm kanam lay jëm sëñ touba du def dara ci barab di ko fu wat li fek ñuko ko mën nga inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin hatta yuxayiru ma bi anfusih jotaay bi itam di lu am solo ndax jotaay boole ay bokk la jotaay fàttalante la ngir am foo teg septak jotaay jataay ay relation yo xam dafa amone demb ndax ki ñu tuddé guddigi ak ki nga xamanteni ni seen lepp ben lañu won muy mag ñi dañu nawlu di and ngir yalla bokkon luñuy dund bokk ben pas-pas donte seen i doxin wuute na itam ñoo bokkoon benn pas-pas ma Matar Diop nag danaan gaa yi kuñ bokkul aw yoon ni la doxoo kuñ aw yoon ni la doxoo mooy mag ñi wuute woon nañ ci doxin nii waaye ñoo bokkoon benn pas-pas ñoo bokkoon benn objectif bu ñuy doxee ñoo bokk jëmuwaay muy sëñ bi rek lañ doon wiise koo ci waxtaanee rek da daan moo kii kat daanaka mooy mooy diw rek te mag ñi foofu lañu sëñ Njaay mi dafa daan wax ni ñu xam la ci sa kër sëriñ jar na nga doon jonkankatub kër sëñ bi ba ñëpp xam ne yow a jonkankatub kër sëñ bi ñu xam la fa rek jar na ko waaye nañ la ràññi ci biir kësëñ bi rek ba xam ne diw mii moom fii la ne daana wax itam ni sawum góor yàlla nees na caa jàpp ndax du sobe loolu tolluwaay la mais bu daan dem ci daara ji day jaar ca ca wana wa fa fa fa dongay sawee jaar ca kii taq taqal tànk yi ba kii door a jàll ndax ki wacc bopam wacc léppam dëgmal sun borom lu ko gëna reuy da amul te mag ñi fofu rek lañ newoon moy dañoo wacc seen lépp dëgmal yalla ndax dañoo wër ba xamni yalla do nga fi nek ñu top gëm way ñu ragal ko nak ba ba duñu noyi sax noyi sax ñu ko ndax ragal yalla ndax dañoo xamone ne yàlla dara da ko sëfut sun borom dara sëfu ko ni lo jappandi ni la ko tek rek da ngeen a su ngeen yagge tuuti rek nga xamni yalla amul lum la jomba def loolu taxoon mag ñi ragal ko doon ko moytandiku waxtu wu nekk yi la mag ñi ne woon ci ànd bu rafet ci jaxasoo ci boole seenu njaboot mu doon benn ci àndandoo sàppee ci gannaaw sëñ bi ngir yaatal lislaam yaatal lislaam moo taxoon mag ñi di ko moo tax Sénégal bu ñu nee quatre pour cent musulman loolu liggéeyu mag ñun biñ sunub liggéey ñu mottali ko mu doon cent pour cent mais waxuma la mottali 5 pour cent waaye say wi mag ñi takkoon muy 95 pour cent moom lañ taxaw ci tasaare ko muy séddale nañu ci ay kër kee fee la bokk kii fii la bokk kii diw la yaakaar kii yaakaaru diw sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ceeb waaye da ngay gis ni saytaan yi dugal nañu ci mbedd moo xamante ni nii bu ñu delloo si waatul suñu xel musiba danoonu dal te danoo xam séddale ngir gën noo néewal kii fii la bokk kee fee la bokk kee nangam la bokk kee nangam la ginnaaw sëñ tuwaay si jëwriñ rek amatul farfarloo kee fee la bokk fee la bokk ñun ñëpp seen lañ war a am jenn imaam bu ñu duggee ci noonu ñëpp noonu la ñu waroon a waaye da gis ñaan kii fee la bokk léegi sax day feeñ ba ci yu bare bare bari yoo xam nit ñu duñ ko bàyyi xel léeg-léeg dañuy communiquer ni tàmbalee ci sëñ Moussa ba ci sëñ Mourtala li tàmbalee soxna Fatia ba ci soxna soxna May léegi ñi ci des anañu dañoo bokkut ci yoon wi ah loolu fi mu toon di ñu bare bari dañ koy boole ci seeni i communiqué defee ne effort la mais rëq-rëq bu mag a mag a mag la ndax ñu ngi tabax ab institution boo xam ne dañ naan ku bokkut ci ñii rek doo dara te fii moom nga leen du fi feeñ ëllëg yomal xiyaam la ngëneel di feeñ mooy nga jéggi siraat gis ni sa waay bu boobaa mën nga koo reetaan waaye li fekk loolu amagul booy ba nga takk sa laxasaay te samp saw xel ci kanam te xam ne moom ngëneel amagul yaa fuus amagul ëllëg booba rek yaa fuus ci xew keroog la ngëneel di xew nan bu baax a baax tey yàlla te teg ko ci sunna te bàyyi sëñ tubaa xel te wutal suñu bopp aw lay ba bu ëllëgee ku ci taseeg moom boo ko ne adduna yow laa àndaloon bala ne foo ma féete woon nga mën a teg sa baaram ni ko fii laa la féete waaye waxi kese rek moom duy doy wax am murit laa rek waxi kese képp la du dara du dara sëñ bi nañ ko jàngataat bu baax a baax fii mag ñi ne woon nañ ko xoolaat te jéem koo dund te bàyyi ci sunu jëmm yi ba boo waaxoo di ñëw nit ñi xeemeem la attan la wutal foo toog ni ñu góorgóorloo ci sunuy dëkkuwaay ba koo ci fekki naw ko ni ñu góorgóorloo ci li ñu lekk ba fa sa tuuti ne seex lu naqari sunu xol yi fexe mu làpp xol yi rek a tilim li señ bi ñaanu lepp nanguna waye ndab lu ko mëna def ci bopam mo melni moy bëgga jafé kon nan dolé gor gor lu bu baaxa baax dolé jappanté ay loxo dolo suturalante dolé muñanté ay ayib té kenn ku ci nekk japp ni fo né ya fa wuutu sa morom foo fii la mag ñu néwon bu ko défé kenn baña doon buntu bi saytane jaar ba man la tagalé ak ñi nga suñ ko défé rek buñ ko défé rek jamm tanam moy bu kenn nak moroom gorom su tàmbalee wax femm ko loolu rek mooy indi jàmm sëñ Moussa dafa mos ànd ak fii ci biir dëkk bi rek ànd ak sëñ Ndindi di doxantu guddi ba jub genn kër borom kër gaa nga toog ci ëtt ba lu mu xam rek mi ngi ko yekk sëñ Moussa sëñ Modou mu ni ko ma di ba déggal sëñ Ndindi taxaw di déglu ba mu yàgg sëñ Modou ni ko waa ma di ba li lu ci sa xalaat mu ne ko bàyyi ma ma ñaaj ñag bi fekk ko ci biir mu ne ko ëpp naa def nañ ma saytul rek ba xam lu mu bëgg daa am lu mu defee te léeru ko wala lu am bëgg te mënalu ko boppam te jàpp ni maag ko xañ lii rek bañ ko saytoo ndeke waa ji daa am jafe-jafey dund sëñ du may yónnee ko dund yónnee ko xaalis fu mu taxawoon di fa xas Modou taxawaat na fa tagg ko ku defee loo xam ne léerut nañ la ko leeralal koo xamante ni nii dangaa am jafe-jafe danga koy wax nit ñi jàppale la ci bari na mer yu ñu am ak yeneen ñaxtu yi am yoo xam lii rek ko waral defee ndax suñ Cheikh Mbacke daana wax defee def na lu ne ci kër gi defee def na lu ci kër gi daana wax ni itam ni nit ñi duñ wax lu am liñ bëgg mu am la ñuy wax daana wax ni itam ni nit ñi képp ku leen tane yaa leen tooñ te tooñ ak tontu du mënta ànd daana wax ni itam ni wolof baa ko wut xas ku ko gën wolof bu jàppee ni moo la gën da lay reetaan saa yoo déggee mu lay xas rek booy boo nga góorgóorlu te la nga newoon bu la ci kenn jële waaye bu jàppee ni moo la gën moo la tànni da lay reetaan danaa ah, saa waay soppi go. soppi koo ko war nga soppiko de war nga fas jom way bo degge mu lay xas diw baaxut diw nangam ak nangam boy bo nga man wat yalla ni yahu ko gën demal ca kanam la nga ne baxna buñ la tané rek dañ lay rétal yoy yep ay bind la yo xamanteni mag ñi dañ ko fe bàyyi fiñ ci tejje nak moy seigne Moussa daan wax rek daan wax ni daal ni ngeen gorlo ba am bu mu rafet mo xamni suñu wote nga man ko sol ñew lu ba am neeg bo xamne ne bu tàngee nga man ci dugg bu dé taw bo ci man sélu a gor lu ba am kilo bo xamne man nañ ko bayyi ci kër ga njabot gi rukk ko mos ko mo wër bu ñu dee xat ak ñuy ree xif sonu lu leen sëñ Moussa néna lool lepp baxna baax na kër nga ci sa kanam go xamne da nga xey yenn ci ci mbang gont fanaani ci laajal sa bop ba xam kër gog loo ko waajal kër gog gi rek mo taxone ñu bolé nok mag ñi ngir wajal kër gog képp da nga fas say loxo nak tok té wajjo yaangi yaangi togn sa bop yaangi togn ko nga andal nga nga andal digelu lu lako lam la digaloon mooy kaay nii may def nga di ko def sëñ Tuubaa daa waxoon mag ñi ni leen ni ma ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa bëgg ngeen ànd ni ak man ñu laaj ko noo ànd ak yonent mu ni dama koo bëgg ba mu gënal ma ñëpp ma ànd ak moom di jaamu yàlla mi nu boole bind dama koo bëgg ba yemaliwu ma ko dara ma ànd ak moom di jaamu yàlla mi nu booleek ñoom ngir nu ànd ñoom di jaamu yàlla lii rek la nu digaloon menn mag waxu fi ñoom àndal leen bàyyi leen jaamu yàlla te ne ci man menn mag wa ko santaani woo ko sëñ bi waxu ko santaani ko te sëñ Tuubaa la àjjana benn buur la am te ku ko jaamuwut doo ci dugg àjjana benn buur la am te ku ko jaamuwut doo ci dugg bind yi rek la doon sol ci noppi mag ñi ba pare di leen ci xiirtal moo tax mosuñoo doxe nen lu dul nii leen sëñ bàyyiwoon té damay wax ni bu doon examen la dama naan examen ba moy karam bu seigne Touba wacce am liggéey mag ñu indi ko fi ci jumaa ji diko ko di ko lijjanti ko borom ba waxtu bi ñu jotee fajar dañ ñu dégg dem julli ji fajar ba ba paré def seen lawrat door ñu àggale lañ doon def ñooñu su fekkonte ni julli waru len wala dañ dañoo sàggane won diiné kéro duñ ko def té kéro gi amon nañu lay ndax nak ku tan seigne Touba nga tim ko ban na la jaxase ba li nga waron def do ko def waye kéro lañ xamni ñu leen doon jangal moko na mu yalla rek ko fi wassalamu alaykum wa rahmatullahi kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel may wax ne nag mag ñi seen dund dafa nekk dund gu riis goo xam ne benn ponk boo ci jël rek benn ponk boo ci rek mën ngaa dem kon sëñ bi ni mu ñu ko leerale kon ñun wër ñëw jiggaane dara mboole lu ñu bëgg ci àddina rek moo xam ci wàllu jikko wala ci wàll muñ wala ci wàll xam-xam wala ci wàllu jëflante bu rafet suñ demee ci suñ mag ñi mën nañ koo am am doy sëkk kon wax dëgg yàlla mboolem njaboot gi yëpp sant nañ bu baax ci ni nga ko souligné tomb par tomb kon lépp sant nañ bu baax kon ñu ngi lay ñaan suñu borom dolli sab xam-xam euh, ba lépp loo bëgg ci yoonu suñ tubaab yi defal la ko kon xëy na ni ñuy def mooy ginnaaw mi ngi guddi dañuy jox sëriñ Fallou dara man mu wax dara ci diggante sëñ Mor Seck Ridial ak di ba alaaxa bi nga xam ne moo tax ñu seen diggante Eh, mu tënkal ñu ci dara rek lo xamne ne eh, dana ci mëna jarñu bu ko defee njaboot gi man cee wat man ci royat ndax mag ñi seen dundu lepp dafa problème bu am rek suñ ci dana mëna kon suñ fallu sil dara man ñi la jox kaddu gi yalla yalla defal katan ba leer soo lammiñ ba li nga bëgg leer lepp ci digënd ñaari goor yalla yoyu sunu borom dimbal la kon bismillah عليم من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ثم السلامان على من لا نبي بعده إخوة الإسلام في هذا المكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي صف سنجي كادوتي كادو سيدي احمد نجاي غيران دي سانت تي جتاي بي اك سي وقتان ويغا خامن ماتال نا مبولم تومب ييغا خامن موم لا ني ورا وقتان تي جتاي بي خمنا dañuy def ab taaliq ci lenn ci ay points yi nga xam ne jàpp naa ne mën naa gën a leer rek waaye ni ñu waajale woon waxtaan dafa dëppoog ni mu waajale ndax ni mu taarife sëñ Madiba ni mu ko jàngalee yaakaar naa ne am njàngale du ko gën a setati tey nag jataay bi euh, du aaje nga fekk lu leer ba noppi nga di ko dolli ak leeral tam leer nañ ñi kon loolu dañ ci doy lu baax ci yu bare bari waaye kon fi may tàmbalee samay kàddu rek ci mooy sant kilifa yi fi teew yépp ci turu Baye sëriñ mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ Mahmoudan Silla mi fi nekkal Cheikh Madiba ak sëriñ Mahmoudan Dar Razaq ak sëriñ Mokhtar si Njaga ak mboolem doomam yi nga nekk yi nga xam ne moom la nekkal ci jataay bi sëñ Abdou ak sëñ Bas ak mboolem sët yëpp ak mboolem mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo bokk ak Cheikh Madiba bés bi bokk ak moom taxawaay bokk ak moom ak bokk te loolu faw ñu lim ci njabootu sëñ Mor Mariama ak njabootu maam Serigne Sylla njabootu Serigne Matar ba ki nekk njabootu Serigne Omar Sylla njabootu Serigne Saliou Sylla njabootu Serigne Omar Fall Boli ak njabootu Soxna Fatou Sylla ak taalibe yi nga xam ne eh, ñooy ñi ngànk daayirab Soxna Njaxat Sylla muy sati kër gi ak taalibe yi nga xam ne yooyu yëngu ci kër gi mooy daal mboolem lu sax ci sëñ Madiba rek kenn ku ci nekk sa ndaw mi ngi ci barab bi di yëg ne bis bi seen bisa ñoo ci bokk yam ñoo ko bokk taxawal loolu ñu ngi leen ci sant ci ak rafetal bu baax di sant yàlla bu baax ci xéewal gi ñu yàlla xéewale Seex Madiba Sylla ci askan wi nga xam ne moom nañu moom la ñu yàlla boole te bu feeñe woon fa faneen itam ni ko sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane waxtaane ñëpp war koo naw ñëpp war koo safoo kon bu yàlla dogalé muy kenn ci ñunit dañ ci sante yàlla bu baax a baax ndax lolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram ak ñu baax ñi muy askan ñu ko yàlla boole muy giru arab suñu borom dafa wax ak ñoom ci alquran ne laqad jaakum rasulun min anfusikum maanaam yàlla jël na ci seen biir koo xam daf ko tan daf ko muy sen ndam waye nak muy ndam lo xamne itam ñëpp ko bokk kon nak fami bi nga xamne ñoo bokk Cheikh Madiba ñun ñëpp na'taz bihi wa natafakhar bihi wa nasalu allah subhanahu wa taala ay yaghfir lana bi barakati wa bi sirri xidmatihi li cheikh khadim radiyallahu anhu ñi ngi koy ndokel ci lolu di sante yàlla di ñaan ñun ñëpp muy suñu texe di suñu xéewal di suñu ndam ndax ñun ñëpp la ko doon liggéeyal di sant kilifa yi fi teew yëpp ci jiital suma joomul nañ ma jéggal sëriñ Cheikhul Khadim mi nga xam ne satub Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la ak sëriñ Ismaïla Mbacké mi nga xam ne satub Cheikh Abdoul Qadir la ak soxna maam Issa Mbacké ahlu Café nga xam ne satub sëriñ Massamba la ak sang yi sant Mbacké yi nekk ci jataay bi yëpp su ma xàmmeewut ñu jéggal ma ñu ngi leen di nuyu ci nuyu ba gën a yàllu ci seeni daraja ak seen wàccuwaay waaye nag di nuyu bokk yi fi teew yi nga xam ne dañoo bokk ak Cheikh Madi ba dara te ma limoon leen waaye am na bokki pas-pas yoo xam ne ñoo fi nekk di doomi ay cheikh kenn ku ci ne yebal na fi délégation ñu ngi leen di nuyu ñi ci ay kilifa ci ay at ak ñi ci ay kilifa ci ay at yu ndaw waaye ñu ñëpp rek ay sëti mag ña ñu ngi leen di nuyu di jël mbooloom nuyoo bi nga xam ne ñi ngi koy jébbal ñi fa nekk te féete ak mag teg ko ci loxol Serigne Moustapha Diané wala Serigne Cheikh Lo dëgmal ci ñiñ tollool ñëpp waaye nag ñi ngi jul nag ab nuyoo di ko teg ci loxoy Touba li abdin muridin sadiqin ci ñi tolloog ñoom génération te nekk ci jataay bi euh, ñi fi nekk te xàmmee leen fi mbooloo mu bare bari lañ waaye mën nañ ci tudd suñu Omar Touré ak mboolem seti seex yi fa teew yëpp ñu ngi leen di indil nuyoo sëriñ Moustapha Rahmat ak xalifa ci la Darabaan yi ki noonu nuyoo sëriñ Daam ni sëriñ Abdoulaye Diané te sëriñ Moustapha ñoom ànd ak sëriñ ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu itam suñu mbokk yi nga xam ne teew nañ fi sëriñ Salihu Silla ak ñi ñu àndal di ci sëtti sëriñ leen mboolem ñi fi teew ñëpp xàmme nañ leen ñu ngi leen di yëgal ne. bokk gi ngeen bokk ak ma diba ak njabootam ay sëtam bis bii kenn ku nekk bàyyi ay yitteem teew loolu sëriñ bi mu ngi leen ci sant bu baax a baax ci turu baay sëriñ loolu ab tàmbali la boo xam ne dañ koo bëggoon a ubbee euh, ci gàttal nag li sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane doon wax lépp dafa mel ne da doon firi benn bayit boo xam ne sëriñ Moussa moo ko wax te fi ko wax làqutuwut ndax defe ko ci marché bo xamné marché sëñ dindi la amana ñëpp da nañ ci jot amana ñeneen duñ ci jot dedet da koo def ci jasaawu sakur nga xamné mom yarante wuñ ne murit yëpp yaakaar naa leer nañ ko murit yëpp gis nañ ko wala buñ ko gisul yomuna gis moy moodu ba silla sabaxal kibaara maa sigaari fa huwa laa yubaara loolu du suñuy wax man ak sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane waxi Cheikh Moussa Kala dafa wax ne li ngay dégg ci li ax ma doon wax lépp yow da ko résumé ci bayitu sëñ Moussa bi mu wax ne Cheikh Ahmad Diba Sylla maanaam jiitu na mag ñam fa fekkoon loolu nag waxi sëñ Moussa Ka sabaxal kibaara mag ñam fekkoon ci sëriñ bi ñuy wut jiitu na leen wala nga ne jiitu na ci ñu bare bare bari ndax mu gën a woyof waaye jiitu na leen li sëñ Moussa Ka wax moom mooy jiitu na leen maa sigaari mu ne ah moo ne ndaw ñi fi teew nekk ak moom it day kenn jotu ko ci manam kenn séenu ko ci loolu it dafa metti ñu mel ne dañuy laaj na ah kon luy pexe luy pexe ginnaaw mag ñi fi fekk raw na leen te te ndaw ñi ci morom luy pexe day mel ne pexe mooy fex wuti ko suñ musaaka karaat leen ne leen fax wala yu baara du koo xam ne kuñ mën a jamanteel aw xel la kenn mënut a jamanteeg moom aw xel fax wala yu baara al mubaara ñuy jàng araab xam nañ ko sëñ Moustapha Diagne maa ngi lay ziar bu baax al mubaara moom kenn ku ne xam na ne mooy mooy match moo xam ak lu mën a doon rek waaye da faaw mu am ko gañe wala ñu wala ñu wala ñu wala ñu wala ñu match nil ci niñ ko waxee ci xeeti discipline yi sport yëpp Cheikh Modibo nag moom ñëw fa jëm ca yàlla sëñ musa Ka nee na neexu cee jamanteel aw xel loolu ab témoignage la boo xam ne mooy li sëriñ Ahmadu doon wax ci pëstéefam ak yitteem ak teel a dem ci sëriñ beeg jox gim joxoon boppam sëriñ beeg jeexal gim jeexal léppam ci sëriñ Tuubaa te desalu ko dara loolu aw déggin la ci sahabatul kiram am nañu ci toll moom yitte ci kër sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu ba ca ñooñu la bokk mooy daa am ñu gis ne àddina amuñ fi wàll waaye nag nañ wàcce waat débat bi ba mu gën a woyof ndax bu fekkee nit ñi ñëpp amuñu wàll ci àddina dana metti de waaye nag am na ñoo xam ne wa yuusiruuna ala anfusi walaw kaana bihim qasasa ay sang lay doon ci biir lislaam ñenn la woon itam faw muy doon nag ci ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa ñenn itam ba ci jamono ji itam faw mu am ñu doon ñenn ci ñoom waaye nag bu bëggee doon ñëpp day ëpp day metti moo tax yonent bi salaa salaam nee na su fekkoonte ne doonut ne dama bëgg a mettital sama xeet wi kon damay faratal ci ñoom nangam waaye nag ku ko mën te def ko lu rafet la waaye nag du loo xam ne dama ko farataal ci seen kaw ñëpp war caa jaar ndax bu boobaa day metti ba ñëpp duñ ci mën a jaar te buñ ci jaarut ak alku da cay war kon moo tax doxiinu mag ña itam ku mel ne Seex Madiba nim nim bankee àddina cib loxoom la ne du ko benkat ci ba ba muy wuy ji boromam yoon woowu diis na lool waaw diis na lool jaroon na ko nag ndax ba Sëriñ Tuubaa di tàmbali yoon wi bu yoon wi taxawutoon wal iyaazu billahi taala li sëriñ Tuubaa bëgg mu liggéeyee ko ci géej gi liggéey ko ci jéer yi ba suñu borom fayee ko mawaahiba laa tatanaha xéewal yoo xam ne du jeex te ñi ko yaakaar ak ñi ko yaakaaru ñëpp xaj nañ ci sacrifice ba mag ñi doon def ba loola mën a am jar na gedd àddina ba loola am waaye soo amee nag warees na ko jëfandikoo warees na ko xewloo suñ ko fi bàyyee ku koy jëfandikoo waaye nag duñ ko jëfandikoo ci lu du dëgg waaye nag mënu mëne su ko fee baax kon lolit ñu bàyyi ko xel bu baax xamne ñom da am lo xamne bu taxawuton musibam ñu gedd seen adina ngir taxawal ko biñ ko taxawale ba nopi nak li ci dess moy ay bagane xewal la yo xamne yu tambale adina jëm al al-akhirah la waye dutul jeex te ñépp ci xaj li ci am solo rek moy bañ caa xep suuf ci sawet gi nga suk na ndab li lépp sax kenn jutiw ci ba ci xep suuf waye ku ci na fa nga tim nak mënees na caa xëpp suuf te boo ci xëppee suuf yow lay karajal yooyu rek moo ci mat a wattandiku bu baax a baax euh, ñu fexe ba itam nit ku nekk ëllëg dañ lay waxtaane nii Cheikh Mody ba nekkee waxtaan wu rafet mboolem ñi àndoon ak Serigne Touba ku ne ñu mën laa waxtaanee mu rafet ñun ñi ñëpp am nañ responsabilité suñ bopp ci liñ bokk ak fa ñu bokk ak ci kër giñ bokk kenn ku ci ne war na fee nekk ab misaal ci ragal yàlla ak mbax ak liggéey serigne touba ak yaatu ak bari ay jikko yu rafet ba meuna ànd ak ñep ba melne serigne Madiba ak ñim rawati na sëriñ rijal sek mi nga xamne mom la andalon ci wëllëreeku xaritoogu ag ci wax nañ ne su ma saa deele ginar serigne rijal deele ko su ma saa mopp mettale bopp sëñ sëñ ko hatta su xeyon yëgul ci bopam ak sawar sax su gëstoo morom ji day fekk ne kenn ka amut ak sawar loolu yàlla dana koy bolé ay nit loolu nag la la la ko sabab mooy dañoo bokk yitti ñoom ñaar ci liggéeyal Serigne Touba te ñoom ñaar ñëpp muy Cheikh Ridial ak Cheikh ba kenn ku ci ne fekk na fi Serigne bi liggéeyal ko liggéey bu sell ba Serigne bi gërëm la ci nekkam ginnaawam nga bokk ci ñiw ñi ko ñi ko féete ci ginnaaw di jàppale Cheikh Mouhamadul Moustapha te ràññi ci wetu Cheikh Moustapha ci passeef ci liggéey ci sacrifice ci gedd sa addina ngir Cheikh Moustapha am ndam ci xilaafa gi. loolu la ko ma Cheikh ba bëggee loolu la Cheikh Rijaal bëggee Cheikh Modiba kon loolu itam ñu bàyyi ko xel bu baax te xam ne ay diggante la yu rafet yoo xam ne sët yi nga xam ne ñoo ko delloosiwaat ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di sant Serigne Cheikh Fental mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootug Cheikh Rijaal ak euh, rakkam yu baax yi ak doomam yi sëriñ Rijaal moom si am di ak ñi mu bokkal ëtt bi yëpp góor ak jigéen ak taalibe sët yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen xamal ne yëg nañ ne Cheikh Madiba ak Cheikh Rijal ay e, soppe lañu woon ay jàmbaar lañu woon ñu boole woon seen bopp lañu woon bëgg kon luñ bëgg te bëgg te yem ca ak bëgg wala e, ñu daa ca xëyandoo te kenn ku ci nekk sa yitte ak sa yittey moroom di lenn mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha am ndam Serigne Touba liggéeyam bi taxaw lépp àgg ba ñëpp mën see jariñu loolu nag soo nettalee seen histoire ñoom ñaar dalay fàttali benn bayit boo xam ne nitu yàlla moo ko waxoon yàlla xaritam ku xaritoog yàlla la daal wax ne dakartuka la anni nasituka lamhatan وأيسر الذكر ما في ذكر لساني وكدت بالوجد أموت من الهوى وهان على القلب بالخفخان loolu dafa nuru ne nitu yàlla bi dafa wax yàlla ne ko man de bëgg gi ma la bëgg ak sopp gi ma la sopp ak li ma yéene ci sama xol te ëmb ko te attanuma ko maanaam su ma bëggee noppalu ci ci cofeel gi ak bëgg gi maa ngi koy noppaloo maa ngi koy nopp noppaloo ci maanaam li gën a jàpp muy samay baati làmmiñ yi samay baat yi sama baat yi sama làmmiñ yi nga xam ne moo nekk sama gémmiñ di tudd sa baat yi nga xam ne maanaam li ëmb ci pasteef xajut ci mënu koo génnee Cheikh Madiba Cheikh Ridial li ñu ëmb ci yéene ci liggéeyal ko Serigne Touba loolu seen yéene daa ëpp doole fuuf li jëmmi zahir attan waaye téewut la ca jëmmi zahir attan dañ caa dem a dem ba kenn ku leen ca mën a dab ci Pastef bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne kenn ci ñoom mënu ko kenn ci ñoom mënu ko ndax kenn ku ci ne sëriñ bee la gënal sa bopp moo la gënal sa alal moo la gënal sa lépp ba kenn ku ci ne doxiin wa nga doon dox dafa nuroog doxiinu doxiinu doxiinu koo xam ne dafa mujjoon sax cërub xaqiqa bi not ci yow cërub xaqiqa bi not ci yow te mooy maanaam ak taalibe sëñ sëñ sëñ sëñ Ahmadou Ndiaye Nguirane wax na ko léegi xam nga ci li li li charia ci ñun mooy maanaam am dem àll am dem àll wala tuuri ndox loolu sobe la waaye lay xaqiqa mooy nit ki egg waay ba muy àgg ba am gaanawaayam nitu yàlla man caa joggi ah di ci yëg ak yéeg loolu mbir la moo xam ne ab cër la ku ku ku fa agut mën nga koo tàyyee weddi ku fa agut mën nga koo tàyyee weddi waaye ka fa àgg moom mën na ko gëm mooy waman yaxut baara alxaqiqati bila fulki shariatin xumquhun jala moo tax yoon wi dafa xaw a jafe yoon wi dafa xaw a jafe moo tax gëm la laaj gëm yoon wi gëm moo ci gën euh, moo tax euh, dafa bari yuñ mënta lijeenti yu bari bari waye nak gëm mom dana ci jariñe ma ngi natali inshallah ben xissa bo xamne Cheikh abdullah hijane moko ko séq ak seigne mu dem nañ ko bàyyi xel lu am solo la de lu am solo la moy seigne mu dafa massa yor ab kamil ci teewaayu seigne abdullah hijane mu koy jàng ba mu jàng mu gis ci ben baat bo xamne baat ba xëy dañ ko wara jubanti dañ ko war a jubanti te fekk kaamil ba ci biir kër sëriñ bi la nekkoon waxuñ na nag sëriñ bee ko yoroon waaye ci biir kër gi la nekkoon sëriñ bi bu masaana yor ab kaamil su ko tegee ci dënn bi xaraf bu ñëwut day ñëw ne ko ñëwuma bu dee sidda day wax ne ko ñëwuma su dee tomb da koy wax ne ñëwuma kon maana dalika war nañoo rafet mën nañoo rafet njort ne kaamil ba kon dugut loxoy sëriñ bi waaye ci biir kër sëriñ bi la nekkoon waaye génn gi mu génne kër sëriñ bi ci loxoy sëriñ mu dem ci nitu yàlla rek la muy wattandiku li ñuy wax saddu zaria dafa ba saddu zaria lu am solo la loo xam ne sax àgg ca xëy na du la wàññi dara nga sori ko ngir ragal a weesu fa nga war a yam loolu lu am maanaa la bi mu ko wa bi mu ko wanee baat bi bi mu ko wanee baat bi ne ko baat bi daan dafa mel ne dañ koo xaw a kii si si Abdoulaye du mooyu ko mu waxaat ko ko mu ne ko ah man de lu génn kër Serigne Touba daa caa munta amuk defar wala ak yàq lu génn kër googa aw man aw ma fa lenn lu ma ci mën a def si mut dem nee na loola da ko caan nawa nawa nawa nawa naw ba sëriñ Cheikh Alima doomam la gis benn jataay ne ko sa waay de fonkoon naa ko waaye la ma ko gën a fonke mooy yittim ju kawe jooju daan ne kuy wattandiku lee day bari na leneen loo xam ne sa yitte du ca nekk loolu lu mat a bàyyi xel la ci contexte bi ñu bàyyi xel lu ñu bàyyi xel la euh, bi ci tombaati bi ci topp bi ci toppaat ñu bàyyi xel ne euh, yitte ji itam nañ ko gën a yéegal bu baax a baax a baax ñun ñi nga xam ne ñoo séq yoonu murit nañ bàyyi xel ne yoon wi yàggagul yàggagul téeméeri at la am war nañoo gën a nàmm suñu yitte nàmm suñu pëseef gën a yeesalaat suñu déggoo gën a rafetal rafetal suñu njortu gën a gën a bañ a découragé ci mbir yi waaye gën a wan ne li fi nekk lépp yënguwut xaajut maanaam bal tegagun tegagun ci loxo li fi nekk sax benn tomb rek jëfandikoo guñ ko benn tomb jëfandikoo guñ ko loolu moralement euh, murid yëpp war nañ ko gën a def ci seen xel ndax am na ay ay ay yu yuy tàbbi ci yoon wi yu bare bari yoo xam ne loolu suñ ko jàngatut am na benn proposition ba ma mas a def sëñ Ahmadou Ngeeraan ma ba ma ba ma bëggoon a ba ma mas a proposé ay boroomi xam-xam maa ngi la koy proposé sama ci ci jataay bi di ko seeral ñi fi teew ñëpp man yëg naa ne war nañoo def euh, boroom xam-xam yoon wi war nañoo tëju ci ay roq di xalaat point yi sensible yi ñu war a waxtaane te ay kilifa di ko fekkee personnellement nga xam ne day nekk ay jëlsaat yoo xam ne istisariya lay doon ay kilifa ñoo koy teewe ñoom képp ak ay boroomi xam-xam yu gëstu yoon wi ñu tege ay tomb développé ko ñu jariñoo ko loolu lu am solo la lu baax a baax la taalibe yi itam ñu leen di defal ay cours yu dëppook seen mustawa loolu ci tarbiya la bokk ci tarbiya la bokk Cheikh Abdul Qadir Jilani dafa am benn jataay benn nitu àddina ñëw mu ber ko mu ber ko benn nit ñëw mu jóg tatagal ko jox ko wàccuwaayam daat koy ber am koo xam ne itam bi mu ñëwee da ko war a jox rek yitte ju ju ju tolloog moom waaye am ku toog ci jotaay bi mel ne ni mu ni mu attee dafa xaw a doy waar ci moom waaye lang nga cay jànge mooy ki nga xam ne day tër bi yow ñu di ko defar kooku suñ ko kopp-koppalee naw ko fonk ko ak defaru gi ñuy wut ci moom da ca nekk ndax daa am ay jikko yuñ bëgg a dindi ci moom loolu moo tax fawu ñu am fuñ ko jaarale pour mu dab gaaña كنن كي دي بورب ادنا مام ادنا رك لا في ورسي دا فاي ورسي ووت دا فاي ورسي ووت يالا ورسي و في دارا كون لم في سخلو موي ادنا تير بوبا بو نكو جوخوت داي ديلو لول موتاخ كون تي انام يويو بارنا تي باري يو خامني وار نان تي غنا غور غور لو بو باخا باخا باخ غن كو ا تك تي اي واتيو وايام لول سونكو دافاي ان شاء الله تعالى دا نغنا باخ دنا دلتوات غيناو تي ليرال ñaari baat yoo xam ne xëy na mën naa am leerut ci man leer na ci man sax waaye mën naa am ci ñum leerut mooy si Ahmadou dafa wax ci biir wax ji loolu dañ koy dañ koy faram-fàcc ngir mu gën a wàcc muy bi Cheikh Mouhamadul Moustapha waxee sëñ Ndindi ne ko demal ndax da ngay feeñal secret baat boobu baat bu foor la mooy sëñ Ndindi day nitu yàlla day nitu yàlla te kuy làqtu bëggul ko ko feeñal nañ foofu lañ koy féetale nitu yàlla boo nekkal waaye du duy feeñal secret goo xam ne nitu comme ni nitu aada yi mel di nettali luñ la waxut maanaam day nittu yàlla di xam lu bari te sëñ mënu Moustapha bëggut ku ko xam ndax jëfandikoo wut sax ci baatinam dara ci xelam la doon liggéeyee ngir denc baatinam ëllëg loolu noonu lañ koy déggee loolu mooy li sëñ bu Bousso defoon ak Serigne Touba way benn xasida tagg ci Serigne Touba ba wax ko ci yu yéeme yoo xam ne xaw naa laal sëñ bi foo xam ne kenn mësu ko faa laal sëñ bi ne ko yow sëñ Mbàkke da nga maa xam bu ma taalifati maanaam bu ma bu ma defati benn xasida ci man loolu moo tax bi mu wàccee ab liggéey sëñ Mbàkke defalul sëriñ Tuba ab xasida marsiya waaye doomam sëñ Mouhamadou Bousso la ko def loo loolu euh, secret yi nit yàlla yi la ñu jàppe ko noonu beneen bi ci des mooy bi mu waxoon itam ci sëñ seex ne ko seex si la bu ma fontoo bu ma fekkati benn jataay boo xam ne du do doonul ne la ma bokka ak kooka moo tax nga ñëw fa loolu ak yëg la ak faale la lim ci jublu mooy da koo bëgg a wax ne ko su amatee yitte ci moom su ñëwee maanaam fekk ci ab jataayam ay nawleem yu mu tollool ay bokk yoo xam ne yëg leen sëriñ Basiiru yëg yëg googa la yëg sëñ seex na agsi ca jotaay ba jotaay boobu mooy ab jataayam waaye bu dee jataay boo xam ne na fa sëriñ Basiiru tooge ak ñeneen bokkut ak yëg gëm war a yëg te loolu yàlla ko dogal loola mooy ak fonkeel ak fonkeel mooy su ma nekkee ci sama néegu biir ak sama njaboot sañ nga ma faa fekk ndax sama doomi ndey nga soo ma fekkee nag ci gàngunaay boo xam ne yitte ja la fa war a mën a jox mënu bëgg ko faa jox bàyyil ba ma wéet ak yow soo amee loo ma wax waxtaane waxtaane ma ko su ma amee lu ma wax wax la ko ndax ñoo bokk ñu bokk te waxtaan mun a ñàkk loolu nañ koy déggee parce que dafa yooyu yëpp ay benn benn la woon yoo xam ne day romb jàll faawu kon ñu ñu ñu ñu jaar ci noonu daal ci gàttal ci tënk waxtaan wi leer na nañ ñi la ca war rafet lépp rafet na ñi ngi sant mbokki e, yi nga xam ne ñoo wuy si jataay bi di ñiñ ko tuddee muy sëti seex Radial Seck yi waaye sëti seex Madiba yi nga xam ne itam ñoo doon taxawal jataay bi ñi ngi leen di sant bu baax di leen xamle ne seex Madiba de kenn la koo xam ne ci ay bokkam fekk na ci ñoom ak mbaax fekk na ci ñoom Serigne Touba fonk leen waaye nag fexe na ba ci seen biir mu wut ci cërum ngën boo xam ne ñi mu bokkal ñëpp nag askanu Mbakol ku ci ne yëg na ne Cheikh Madiba ab sagama ci biir kër Serigne Touba. loolu maa ngi ciy tëjee ci benn xisa rek boo xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu dafa dajale woon ay bokkam yuñ xam muy Serigne Muxtaar Marema waajuram ak Serigne Moustapha ak Serigne Mañaaw ak Serigne Abdou Basila ak. ñu ku jot ñu jort ne kenn ka ka leen juróomeel mooy sëñ Mor Sile Yalma mooy maami sëñ Basiru Sile imam mii sëriñ Touba ne leen yaa ahla ñaxal mooy fi sëñ mi di ba bokk walakum fii ñaxal jazaau llahi min xawfi llah wa xawfu llahi min lutfi llah loolu mooy environnement bi wër Cheikh Madiba Cheikh Madiba li ko wër lépp ak sell la daa ñëw fexe ci seen biir nag daa di tàllalu wuti yàlla ak sëriñ bi ba nekk monument ci biir bokk gi ci loo xam ne yàlla def na ko mooy lan Yen ñi nga xamne ne yéen a ci sama kanam yen day am ngeen payuk yalla lutax da ngeen ragal yalla te ragal yalla gi ngeen ragal yalla na ngeen sante yalla ndax ak yalla yalla mo leen ko baxé kon seigne touba ñi ko fekk ci won ñep am nañ ay ndam am nañ tawfiq waye Cheikh Madiba am na ndam am na tawfiq ndax ay bokkam dañuy andale ak ragal yalla andale ak mbax andale ak gem joxe sen bop ci yoon yalla ba ci bir joxe bop googu ci lañ joxe wala Cheikh Madiba ak mboolem lim bokal mu fa mu fëx nag wuti yàlla ak yonent bi dem ci Serigne Touba léggéey fa liggéey boo xam ne tey jii kenn dut ko nattable ci yoonu murit ndamul ku yaakaar Serigne Touba la ndamul ku bokk Mbakol la loolu ñu ngi ko ci sant di ñaanal Cheikh Mahmoudan mi nga xam ne moo toogee ab jotaayam ak sët yi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bi yàlla na leen yàlla kattanal ba ngeen yàgg ko def yàgg koo amal njabootu Cheikh Ridial yi ñu ngi leen sant bu baax ci seen dikk ak seen taxawaay di xam le ne rafet na bu baax a baax a baax a baax diggante seex Rijaal ak seex Madiba mooy bokk yitte bokk ba séef jeex tàkk ci Serigne Touba li ñu am lépp jox nañ ko Serigne Touba Serigne bi tey leen seen lépp loolu doy na sëkk aw hada wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Fallou ñu ngi lay sant bu baax di sant itam. sëriñ Ahmadou njaay Nguérane ñu ngi rafetlu lool waxtaan wi di rafetlu it di yëg yéene ak yitte ji ngeen am ci waxtaan wi ngeen ji fay noo ngi ñaan itam taalibe yi dégg waxtaan wi ñu xam ne du ay léeb te cëy ak askay du ci tax a jariñu xanaa liñ ci jublu woon ñoom rekk ab seex dafay mel ni ab docteur ndigal di garab askan wi ñoo wopp jox leen ordonnance ko war ordonnance bi nag mooy ndigal yi rek nañu xam ni ne kéemtaanuk mag ñu baax ñi amaluñu benn njariñ féeg jéemu ñoo teg suñu tànk fañ ko tegoon wute lu baax nañ ko doon wute ngir ñu amé ko nañ ko amé wa bokk yi li ñu doon waxtaan fi te teunk ko ci pass pas dinaay faral di wax ne ma ngi dok lu ngant nak ndax xeyna wax ci pass pass du sama domaine waye damay misal ne pass pass dafa mel ñu jënd benn mouchoir 12e bu def ay mouchoir lal ko ci sa kanam ben mouchoir ba nga jël jama fas ko ca ben ba nga jël or 18 21 carat def fas ko ca benn ba nga jël xaalis fas ko ca ba ca des nga fas ca përëm ba ca des nga fas ca weñ gu ñuul ba ca des nga tibb suuf def ko ca noonu jamaa gënanteeg yooyu ba àgg ci ay nefare ni la pas-pas yi wuutee koo gis am na lu mu fas li ngay fas lañuy xool ba xam ndax ngën ji pas-pas la walla kiisum pas-pas yi la pas-pas day ëmb yàlla ak yonent bi ëmb alxuraan ëmb sunna ëmb lislaam ëmb jikko yu rafet loolay ngën ji pas-pas ca la mag ña doon dàq pas-pas boobu bii mag ñépp ci Sëriñ Tuubaa lañ ko jëlee Sëriñ Tuubaa jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne diggante Sëriñ Tuubaa ak yonent bi junni at yi tegal na pas-pas a tax mu jéggi ba bokkuñu waaye mu daw ba dugg ci ci Ababacar Omar ak Ousmane Aliou ko ko réeree dem ba mujj kenn mënatut dox diggante ak yonente bi sallam mu xëy di fuutaatam parce que moo ko ci lu mel loolu nag jëlewu ko ci mor ante ko ci nijaayam bi mi bari woon xam-xam tey xam jëlewu ko ci maamam Maxtaar Ndumbe mi nga xam ne mook soxna astawaalo bi nga xam ne ay kànkóore la ñëwoon jëlewu ko ci ñoom yitte ju rëy digganteem ak boromam ak may lool loolee it mu jaayanteeg yonent bi kara ba mu ko gisee suñ borom may ko tawféexi mu gis ko jàkkaarloo gàngooram nga mu ne ñii rek laa bëgg a bokk ba tax mu sóobu sóoboom gu meg googee la mu joxe woon mag ñii ñu doon waxtaane loolee la ñu joxe woon mooy dammi wa ahli wa awlaadi loolu la sëñ kenn amut lu ëpp loolu loolu la sëñ waa amoon joxe ko ñii ñuy waxtaane tey di Seex Madiba ak Seex Rijaal nii loolee la ñu gis te Sëriñ Tuubaa xemmem ko def na moom nit nag mënta joxe lu weesu alalam ak deretam ak njabootam loolu la mag ñi joxe woon danañu jox kaddu maam Sëriñ mooy lim délégation yi fi teew ñu jox Serigne Cheikh Fental mi nga xam ne mook bàyyi Serigne bu ngeen noppee yéen da ngeen di jóg may leen ndax Serigne seex Fental dafee wuutu si sëriñ Mor Seck Rijaal kon bu waxee ba noppi gone du ko tontu ndax sëñ Mor sekk waxoon nañu ko keroog ban fa demee. kon bu noppee bàyyi Serigne mi fiy waxal sëñ Mahamadan day ñëw toog ñoom ñaar ñu bokk toog bu sëñ seex Fental noppee bàyyi Serigne wax turu sëñ Mahamadan ñu jéggaleen waaye ñoom ñaar day nekk ñu woon ci kër gi doon ay ay xarit yoo xam ne. jéem a xool nu ñu régler seen situation moo taxoon dañoo daje ci ay mbir le grand sëñ Samb di xasaa lii ne waxoon na ne keroog ba mu gisee yaari petax yu yu yu yu ànd te xamut lu petax ak lan lu riis Thank you. na loolu kii jël na jalub gerte ne bu ci kenn doom ñaari ponkal kenn gisul sa morom mu ne jox naa ko sëñ Tuubaa bu ci kenn mës yu doom bu waat ne lépp jox naa ko sëñ Tuubaa yéeg ci boo doomub gerte toj boppub doom sama doom bi sa teex si la moo ma ko gën a loolu la sëñ Madi ba def Seex Rijaal jëlub camion sarse ko ba mu desub saako amut lu mu mu jël bàyyi sëñ Seex Fatim complété ko camion ba jox ko sëñ Tuubaa mbokk yi ñooñu pas-pas la ñu bokkoon yitte lañu ñu bokkoon ci jox seen bopp sëñ Tuubaa nettali nañu ne seex Ridial jël na kër ga ngir bëgg a bokk ci liggéey bi ñu liggéey te booba bu doon wàcc wàcc na ndax seex na itam am nañu ko defal lépp defal na loolu yanu kungu ga dem jébbali ko sëñ Tuubaa yanu ko

Cheikh Fatim Seck ànd ak Cheikh Magay Seck ak Serigne Sam Seck euh, ki nga xam ni mooy kilifa ak jataay bi nag di Serigne Fallou Mbacké ibnu Serigne Mbacké Soxna Lo teew na fi ànd ak délégation bu dàkku Serigne Cheikh Lo di borom kër gi moom itam miin kër gi teew na fi ànd ak Serigne Moustapha Lo dëgg ma Serigne Bassirou mom soxna ami poroxaan mom serigne mari wasila yalla na ko yàlla xare aljana te teew ko te tere ko ci aljana ye ya gëna kawé kawe ci dara ji serigne Touba ndax ci jamono yi poroxaan rek la waccu liggey ta waajoon na waju poroxaan ah, ba yam fa waroon a yit wudon nako ba sunu borom loolu la ci dogal kon ñing kay ñaanal sunu borom teewal ko eh, xare ko aljana da bolé ko maam jaar mam doon liggéeyal barki serigne Touba sëriñ Basiiru Mbàkke nag ànd naag sëriñ Moussa ak sëriñ Ismaïla Mbàkke ak sëriñ Basiiru délégation sëriñ Abdou Karim Touré ci njiital sëriñ Mamour Touré ak soxna Ami Ñaana Mbàkke moom sëriñ Faati Xari Mbàkke ànd ak rakkam fekk si ko muy ahlu kafe ku nekk xam na ko ci kafe mi ñoo ngi koy ñaanal moom itam li nga xam ne bëgg na ko liggéeyal sëriñ Touba mu liggéeyal ko te sunu borom eh, fay ko fulal koko barke Serigne Touba delegation Serigne euh, Abdou Hakim Gadiaga ibn Serigne Madika Gadiaga mamadou tewna fi ci sen jitul mak Serigne Khadim Gadiaga Serigne Dan Sek Sura ak njabootam andak wa keur Serigne Fallou Sek, wa keur Serigne Fallou mbake Assou djey ñoom itam teew nañ fi ci delegation ci njiital Serigne Ousmane mbake ak Serigne Abdou khodous mbake serigne cheikh mbake mom serigne modou rokhaya mbacke daru salam mom tewna fi di sunu xarit di sunu walire serigne cheikh mbake mom serigne fallu euh massamba mbake ñu diko gëna ñu gën ko xam ci cheikh kala mbacke doon jangi fi ci kër gi mom tewna fi serigne amar mom serigne ibra dior amar mom tam tewna fi serigne mustafa ndjay serigne mustafa ndjay mom aladji mbarik ndjay sadio mom tewna fi njabootuk alaaji Mbaarik Njaay gi sëriñ soxna maam say Mbàkke bintu Seex Soxay bu Mbàkke teew na fi sëriñ Abdou Jaxate moom sëriñ Mbay Jaxate ak rakkam sëriñ Mbay Jaxate moom sëriñ Mustafa teew na fi waa kër sëriñ ma waa kër sëriñ eh, Moodu Moodu Maxtaar si la Njaaxeen teew na fi eh, ci njiital Bàcc ñaŋ ak Ablaay Ñang fekk si fi njabootuk sëriñ Moodu Maxtaar gépp ku ci demé nek soxna ndey sila ak soxna ndey soxna Fat Mbàkke sila wa kër serigne Amar sila. di mbokki serigne bi ñu bok ñom bis bi ñom tam ñew nañ fi and ak ñun bañ ko tambalé ba fimné ni wa nii waa kër sëriñ wa kër waa kër Baay sëriñ Silla Maxtaar kasaalika naka noonu waa kër sëriñ Omar Fall Booli ka naka kër dëkk ci eh, côté côté dëkk balaay fàtte ci côté xombal ñoom tee nañ ci waa kër Baye Sadex ñoom tam ko saali gën a noonu ñoom tee nañ fi délégation waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye euh, Serigne Mbacke Ndiaye moom Serigne Mbacke Ndiaye taala ak Cheikh Mbaye Ndiaye jàngkat ñoom tam tee nañ fi ànd ak délégation bu takkoo takko waa kër Serigne Mor Mbaye Cissé ñoom tam teew nañ fi sëriñ Abibou Dia ak sëriñ Ahmadou Dia ñoom teew nañ fi sëriñ Ibrahima Badiane moom itam teew na fi waa daayira Touba li Abdin Mouridine sëriñ Mourtada Gueye di njiit la teew na fi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Jiili Abdoul Ahad ànd ak sëriñ Bàcci Gueye ñoom itam teew nañ fi sëriñ Lamine Mbacke moom soxna Ndeye Diop moom sëriñ Xaadim moom itam teew na fi. soxna maam bu sa Mbàkke soxna maam bu sa Mbàkke moom sëriñ Abdou Xasis ànd na yabal na fi délégation bu takk teew nañ fi sëriñ Xaadim Amar ibnu na fi sëriñ Fallu Mbàkke mooy sëriñ Fay Mbàkke Mohamed moom waxoon nañ sëriñ Basiru ibnu sëriñ soxna Ami Silla moom tam sëriñ Seex Jóob sëtub Seex Siidi Maxtaar moom soxna May teew na fi sëriñ bu sa imaam ak sëriñ Fallu bu sa asan ñoom tam teew nañ fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu loolu moo fi teewoon ginnaaw loolu kenn ko ne bi لم يلد ولم يولد قط ولم يكن له كفءا أحد في ملكه فعال لما يريد ويفعل ما يشاء يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل سال كلام إقواننا في الدين والإرادة نحييكم بتحية الشعادة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نبقل سرين توبا بقي نبقل بس بس جنا أبونا الشعر برم جامونا الشيخ سيد المختار أيده الله ونصره دي شعر برم كرغي دي شيخ أحمد المختار يالنا في أغتوير باقل نالي noo ngi siyaare sunu kilifa gi nu bokk Cheikh Moustapha Mouhamad te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tawér ñuy sant yàlla ci bim nu moom ñu di ko sagoo ngir jamono jii ñu toll ko ci yàlla may kilifa gu mel ni moom war ngaa sant yàlla bu baax kilifa gu ràññi ko ci ragal yàlla ràññi ko ci jaamu yàlla ràññiku ci dëggu akuk sàmm akuk sellal ak mat nit ñi ci xaadal waraabil aqwami ku ko yàlla may war koo sant di ko sago di siyaare ki ko fi jëmmal di Cheikh Fall Serigne fallu mbakke Mouhamed yàlla na fi yàgg te wér xeebalut kenn bisam loo ko yëgal mu bàyyi yitteem te ñëw noo ngi jéggalu sax ci jataay bi ñuy toogandoog moom ngir yarewuñ nu loolu xay na jataay bee ko woote rek ginnaaw loolu wa kër Cheikh Madiba noo ngi len di nuyu ci turu wa kër Cheikh sek euh ñu tew fi ci ndigalul Cheikh Ridial sek ibnu Cheikh Amdi mustafa mu amone yene tew fi lol waye mu fek ko ci yoon wu sori mu yabal ma ma and ak serigne sam ak serigne Cheikh magay ay rakam ak soxna Xadi ak soxna Say ak mbollem talibey ñu andalon ci ngor ñep Eh, ngir ñu teewal ko ci bis bi di ci sant lool nag te di ci bég mu ngi leen di nuyu sëriñ boobu nee na nuyoo bi mi ngi koy teg ci loxol sëriñ ab du Sylla mi nga xam ni mooy jiite sët yi mu jot lil ko ko kilifaam gi ci biir kër gi kilifa yi ci biir kër gi ak mbooleem ay rakkam yi mu àndal bis bi ak mbooleem bi yi nga xamante ni ñoo aju ci kër gi Cheikh rijal di bege cër bi ngeen jox kër Cheikh rijal kiko def de ñi yeen ñiko def de euh, defu len ko ci asar ci xam-xam bu wër ak xam digënté Cheikh rijal ak Cheikh Ba ci ngeen ko def di ñaari mag ño xamanteni ni ña nga andé won ci Serigne Touba ba ci Cheikh Mouhamadul Mustafa, ba ci Serigne Cheikh ahmadou mbakki kenn ka tàggoo wàcc liggéey ka ci des continuer ba ci Cheikh Mouhamadou Mouhamed Mbacke muy sëriñ Madiba kon sëriñ bi wax na léegi ka wax euh, xat sadaqal xaa'ilu Cheikh Masiba Cheikh Madiba sabaxa kibaara maxa sixaara walaayu bara raw na mag ñi raw na ndaw ñi loolu mënees na koo dégg bu wér ci àndoon naag mag ña doon liggéeyal sëriñ Touba te kenn raw ko ci ànd ak mag ñi doon liggéeyal xalifatu Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Mouhamadou Moustapha ànd ak ñi doon liggéey sañ sëñ Cheikh Ahmad Mbacke ànd ak ñi doon liggéeyal sëñ Mouhamad Mbacke te musta arrière musta saa su ne bés bu ne day gën a beesal pas-pas kon ki wax ne raw na mag ña raw na ndaw ña fu wér la ko teg euh, diggam ak Cheikh Ridial nag liñ ci wax doy na ñun tuut nañ sax ci seere ko ndax ay tuut tànk lañu waaye doy na rek ci seere muy bis bi nga xamante ni njabootuk Cheikh Ridial ñu ngi koy màggal te di ko defal sëñ Ridial Seck moom ci tur wi nga xamante ni moom la ko xaadimu rasul tudde moom Cheikh ba moo ko joxoon ndigal sëriñ Amdi Seck Ridial ni ko bis bu ngeen di màggal de bis bi moo gën a yeyoo màggal bis boobu kon na màggal ba tax na ñu bàyyi bis yi daan màggal yépp di ko màggal muy 28 janvier moo leen jox date ba moo leen fàttali euh, bis bis ba kon loolu firndeel na seen ànd ci sëriñ Touba. ngir moom mat be ci seuk séré mom mi ko fekke won ñu ànde noonu ci jamono Cheikh Mamadou mustafa fu leen Cheikh Mamadou Moustapha digal mel na digal na ko sañ ci wet ga da rahman gi ñuy wax keur rijaal nga ne dañu da nañu déggante seen seen dënd yi shahadatu boko reccé gar la nga cey tek ba ci jamono Cheikh Mamadou Moustapha bi muy waccu liggé Cheikh Madiba moko yegali Cheikh rijal ba ko ko yegale fekk na Cheikh rijal mom ji jikkoy daanukat ji waxoon na ak donga yeen leen fekk booba dañoo ruuj bay séentum ceebo mu ne leen bu asamaan sébbee ci guddi gi lu ngeen mën a dégg ak lu mu rëy rëy rëy rëy bu mu leen teeli xëyte tool ya yàlla dogal asamaan sébbi ci guddi gi xibaaru Cheikh Mouhamadou Moussa ñëw waaye terewul dafa ànd ak ñoom ca tool ya di liggéey ba naaj wa tàng jër mu fëkkub larmet ci jëwriñ di tobbil boppam di kañu naan sama sëriñ bu baax ba dem na sama sëriñ bu baax ba dem na loolaa ko xamal donga yi ñëpp yuuxu waaye demul Touba keroog gisewut ak sëñ si Ahmadou Mbacké bu dul ba tool ya matee liggéey ba mat mu mu jaay gerte ga ak dugub ji bojj lépp ànd ak lenn ci jëwriñ ji di ko jébbal ko sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké jaayante ak moom ngir booba mi ngi fàttali ni xamal jaam ñi ne mbir mi liggéey rek a fi ne ndax kenn ku ne sa mission bu matee da ngay wàcc liggéey Cheikh Amadou Moussa xamal na ne li muy baax baax mission bu jeexee day day wàcc ndax gën ñi min def sallallahu alayhi wa sallam ba mu wàcceeb liggéey saxaaba yépp jaxasoo ba Sina Omar bocc jaasi ni wax ku wax ni Muhammad gën naa duna ma dog sa bopp Sina Abu Bakar moo taxaw delloo si saxaaba ya jàng benn laaya xamal leen ni ku doon jaamu Muhammad Muhammad wàcc na ku doon jaamu yàlla yàlla suñu borom du fi jóg ñépp dañoo dellu si waat Sidna Omar ne aaye bi li ma ko jàng lépp tey laa koy door a dégg Cheikh Ridial loolu la doon fàttali ba keroog ñëwul Touba liggéey ba rek la fonk ba liggéey ba mat mu dikk jaayanteeg seen Cheikh Ahmadou Mbacke ba mu jaayanteeg moom ba noppit am na sax ay wakkat duñ waxante jërul wax fii waaye xamal na ko ni mbir mi moom nun bul ni bàyyi Ridial bul ni bàyyi Madiba bul ni bàyyi may faaloo ay gëleemi naar lañu rek war a sëf na sëf noonee lañ àndee noonu lañ àndee ba ni mu fi bàyyee moom si Ahmadiba mu ànd ak njabootu Cheikh Ridial di leen teete di leen digal ba ci maa ngi fàttaliku fii ci kër gi Cheikh Ahmed Seck Ridial bi bi mu nekkee secrétaire général ci daayira seex si daan ànd ak moom fii ci kër sëñ bi di ko fekk si ba noonee la ko fàttalee bis boobu jox ko ci ndigal kon ñooñu lañ seqoon muy sëriñ Touba rek sëñ Ahmadu wax nga léegi lu am solo mbir mi mujj gi ñii wax nañ ni sëñ Madiba la mujj seexal amna ñuy wax ne seigne Rijaal la mujj a am ñuy wax ne seigne Moussa ali magay la mujj a am ñuy wax keneen am ñuy wax keneen waye loolu la am solo moy mujj gi ak njëkk gi amu solo wolof day da nañ wax sax séddale ci mujj gi ku kudduy jëkk ya waye booba kuy séddale luy jeex moo tax ñu di ko wax waye ku yor lu dul jeex bu la neexee koo mujj a sédd mu ëppalee de serigne touba lu la yor du jeex ndax alal yàlla la jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baaqi koku moy kon bari na ci ñoo xamni sax dañoo daamu won cër yu mujjii ndax japp ni mo gëna doon ndax sëriñ bi dañ lu mu jàpp doole ci mbiram ba na dem na ba ni fàgguwul sax bay bu gën doom ndax kon yoon wi day deltu ginnaaw te bëggul yoon wi deltu ginnaaw sëñ ahmadu guddina na ma daal fii laa mën alaykum wa rahmatullah jërëjëf rahim euh, sëriñ si fi daje ñu ngi leen di siaré bu baax ci seen tour ak seen sante di jital ci siyaar bi ak nuyoo bi ki nga xam ne moo fi nekkal sañ Sidi Mokhtar nekkal fi sëriñ tuubaa yaakaar na ne sëñ Seexal Xadim lay doon ci góor ñi ndax sëñ Sidee ko jur sëñ Abdoulaye sëñ Bamba ñu ci teg sëñ Ismaïla Mbakke ndax sëñ Moudou Abdou Khadir ko jur sëñ Abdou Khadir sëñ Bamba ak ñeneen ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak ñoom ñëpp te mel ne ñoom ak ñi nga xam ne meluñu ne ñoom waaye ñoo bokk Serigne Touba ak ñi nga xam ne ay seex lañ di ci tegit sëñ Fallou mii nga xam ne moo fi neel sëñ Moustapha te kër gi bokk ci kër sëñ Moustapha li may njëkk a tàmbalee nag moo di sëriñ Mahmadan mu ngi leen nuyu yéen ñëpp mu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. ma ngi leen sant yéen ñëpp rawatina rawatina ñii nga xam ne ñoo def bis bi muy sëtam yii di yu góor yi ak jigéen yi ñi ci ñi ci baayu ak ñi ci yaayu moom de xam na ne képp koo xam ne am nga sët bii am nga sët yu mel ni sët yi war ngaa sant yàlla ndax buñ defee lu mel nii ngir waajale ko bisu suba bi tudde ko Cheikh Ridial lu jekk la lu lu yàlla la nee na mu ngi jiital néew bi ci kër Cheikh Ridial ndax bis bis bi sub Cheikh Ridial la sëñ Cheikh fental mooy buntu ci kër Cheikh Ridial ndax mooy doomi Cheikh Ridial gi nga xam ne moom mag ci waa kër Cheikh Ridial mooy xalifa bi ni nga xam ne moom dañ demoon ci moom lañ demee ci Ridial Ridial di doomam di ndawam bon bu fekkee ne rijaal ñëw na waa mu yónni ay doomam nee na mu ngi jaarale ci yoon ne bi ci ki nga xam ne moo fi nekk représenté Cheikh Ridial mi mooy mu sëñ bi toog Cheikh Fatim mi mu jotale ko Cheikh Ridial te ko sëñ Cheikh Pental mi nga xam ne nii day doom moo tax ñëwut ndax ay sët koy def waaye amuñu luy naatu ne bu ko doo ay doom doon def dees ko gis nim kër gii la yilife kër googee sëñ Madiba nag dafa am ci ay cër ci fu ne ndax buñ la waxon wa ndam lim sekk ñom ci ci lo ñom ñi da nga naan sëñ Madi ba ñoom rek la jaxasool buñ la waxee sëñ Mbaye Fallou lim sekk ak mom li nga xamne moy preuve ma nga ne tok mu sëñ Cheikh Khadim ñaar dox digg ma sëñ Bamba buñ la waxoon lim sekk sëñ Abdou Khadim non lim sekk ak keneen ak non mom ak talibé ko ñor ak bok ak rafetal ma leen soñi tay soñi sa bop ci ñuy rafetal te xool li ñuy def ak a wax loolu moo di lan man de damaa teewe kenn nettaliwuma sëñ Mbàkke Soxna Lo ci kër gii di kër Soxna jóg Jóob gii boo masaan dugg ci niim gi sa càmmooñ deux heures de matin ma te ko tàngal ataaya bàyyi sa dex bàyyi sëñ si la mi nga xam ne mooy sama kilifa toog na fa ak ñeneen am na keroog ku wax ba tudd kenn ci waa kër sëñ Tuubaa yi sëñ Mbàkke daf ne bëreet na ko yow dag maa yab xanaa xamoo kooku li mu bokk sañ sëñ Mourou Moustapha mu ne ko ah kay mu ne ko lu tax nga ñeme ko xas sax ñeme ko xas sama kanam mu ne ko tuub naa ko mu ne ko tuub doyut booy tubal tubal sëriñ Tuubaa mi jur kooko yow de yaakaar yaakaare ne sëriñ Tuubaa la ne defar maa ak yow bàyyi ko mu da ngay nax sa bopp bon say boo nga seet weneen yoon toog naa it sëñ si la ne ci ay wax mu ne nit ñi de dañoo xam kan mooy sëñ Bàmba daa ne gees koo kam doon waxal ne ko xam nga lu yées ci li ñuy defa muy nakk nakal mu ne ko ndax xam nga li gën a araam ci li ñuy def muy nakk nakal mu ne ko sàngara lañ wax ne mooy yaay yi bu ñu nee nit nag day bu ñu nee nit nag day mooy yàlla jigéen a góor rek lañ koy daal di féetale mu ne ko waaw mu ne ko ka nga xam ne mu ne ka nga xam ne dafa naan sàngara ba màndi ngeen déglu baax li muy wax de ba bu koy nettali jaar foofu boo ma du jaar bu ko nettali ndax nee sañ sëñ ma nee na bëgg mu mu dolli bëgg mu wàññi ko mu ne ka nga xam ne dafa naan sàngar ba màndi dugg sa kër te nekkoo fa mu ànd ak sa soxna sa nga takk sa kaw bi lal nee na nga dikk guddi ubbi sa néeg fekk ko ca kaw lal ba fekk ko sa kaw soxna muy wax yow mënta wax bu baax ndax màndi nee na boo fabee sa loxo bi dóor ko day nee na bu siggee xool la lu mu wax bu dee sët bu sëñ bu sëñ Tuubaa amutoon du am nee na boo ko gëmoon ko xamoo sëñ Bàmba loolu sëñ bi di wax na ko loolu nag bu amee rikk baay ñun taalibe yi nañ xool li ñu def ak a wax nañ delloo suñu bokk ci taalibe mënoo xas nit baayam xas magam xas rakkam te ne gëm naa ko danga koy nax kuñ ci xas sa baay nga mer kuñ ci xas sa yaay nga mer kuñ ci xas sa rakk nga mer kuñ ci xas sa doom nga mer lu tax na waa kër Sëñ Tuubaa ñu ñemee leen ko bari waññu ko naan ay murid saadix lañ déedéet mënta nekk murid saadix murid saadix ku ko doon da nga war maal bu baax a baax waa kër ak foo mu kep képp koo xam am Tuubaa du am gëmal ne bo jibol ci ke jibol ci mom te xamal ne ñoo ñëpp ñoo daje sëñ Tuubaa te ciar mbakem daru musse kenn net ma ngi daru ma ngi New York ñu bok New York mën na nekk bi ndax bak Mbàkke Sàmb ñoom bu ñu nekkoon nañ ko te ñu bare ngi nek New York ku ko gëmut bu ko jëk a mu nek New York jamono jo laaj ko ko day dafa aksi ñu fekk ko hotel ba tuddu ko ay tur di wax ci sëñ Moustapha Mbacke sëñ Mbacke so moom sëñ Cheikh Mbacke mii naan ko def loo ñu def loo def ni dañuy liggéey loo di ko lekk maam Thierno waxut de tey taalibeem lañ daa bàyyi ba dimanche ba ñëpp daje mu ne diw ak diw lu ngeen waxoon ñuy nakk naka mu leen kaay ma wax ak yéen nag tey na ngeen moytu Moustapha Mbacke mii ak ku mel ne moom ndax man Thierno mi bu ma desoon maa moom ci kaw suuf mooy mooy moom jumaay Tuubaa jumaay Tuubaa koy moom man mën naa wattandiku képp koo xam ne boo dundee maanaam moom jumaay Tuubaa ji war ngaa wattandiku te ñii ñu maanaam moom jumaay Tuubaa ngi ci seen biir ñi ci biti ñu maanaam moom jumaay Tuubaa ngi seen biir te nag ñun ñii fi dajee tey jii doomi sëñ Madiba Sylla wala ñuy sët sëñ Madiba Sylla wala ñu taalibe sëñ Madiba la koo ci waxam boo yëkkati wane woon ki ku ja koo gëm ku ci gëm sëñ Madiba Sylla gën ci eh, sëriñ si wala ci seex si na yëkkati loxoom ñëpp a yëkkati loxo. way way bu señ ma di bëgg nee ba pare tey gënoo ci ya yes bo bu sëb señ gënee da ngay fexé gën fexé gën nak modi li nga xam yalla nako ko da damay wax ak sëñ Thierno Mbacke Gelongal mu ni ma señ ma di bëggee man dafa jaxal ndax xam histoire bu net lu mukk ci aduna reug reug yi murid gi li reey reey reey ak li yag yag lu ñu señ ma di mu def ko mané waral mu ne xam kan kan mooy sëñ Touba ndax xam ne loo wax doomi sëñ Touba wala sëtum sëñ Touba sëñ Touba nga ko wax ndax sëñ Touba bu ma nee defar jàmbur yi bàyyi ay ak njabootam lu ñu wax moom lañ ko war a wax dégg naa it benn bés mu ne te Cheikh si la ko doon wax waajuru keeca la sëñ di secrétaire Diall maa ngi toog sëñ Cheikh góor ci la sëñ sëñ euh, euh, ba ba Seck wanaat ci la sëñ Cheikh Ndiaye Mbaye Falloo ci la dagg soox ya bañ daggal ko yax de soox ya dagg tegal ko ci muy nek neena ko way bu de leena mo jabar bu sacc di ci bu de jam pak mo jam bu de bu de faatu nag ginnaaw sëñ Tuubaa mu am ay taalibe amut sëñ Mourou Moussa fi samp lool sëñ Mourou Moussa bi mu koy samp samp ko nag ngir ñu nit ñi nit boo ko gënul ndey gënoo ko bàyyi mu la jox addiya di la siyaare booy lekk mu làqatu boo desee jox ko te lu bos jàpp ne eh, eh, mën na ko texel àdduna ak àllaaxira yow may desal loolee fépp yooyu rot ba nga xool yaay kan te góorgóorlu joxe addiya baax na lool siyaare bu baax baax na lool waaye nag ginnaaw ñi ci ëpp dem makaak yi ci yëpp daanaka dañ koy xaw a sawante ngir loolu boo ko defee te jaamoo yàlla li wax rek a ci ndax sëñ Tuubaa kat moom li mu wax leer na du àjjana boo jaamu yàlla moom nee na xamu xamu diggee su ko te diggu kenn sëñ Tuubaa ne lu diggu kenn daawu ko def sëñ Mourou Moussa ñoom daawuñu ko def si Abdou Fall ñu ànd ñemewuñ ko dañ ko ñemewutoon ba di def ku mu mën di doon def da ngaa bis baa ak sigur waaj boo sa amee nga xam la sëñ Tuubaa dig la sëñ Tuubaa naan aaye ñam àndoon ragal ko mat naa ragal foofee nag dellu gannaaw day weeru sëñ ci ba tax na ko ñi ne gis ci kër ju du ay wax ne kuy dem fépp lu ñu wax fépp ca nga ndax nee na ku fekke lu dëgg te weddi nee na xam nga ne boo fa delluwaatee dañ fa wax te dëgg ca nga ban sëriñ bi sëñ Fallou bu la yàlla yóbboo ci sëñ Moustapha mi nga xam ne moo yilif gone yii ndax moo yilif mag ñi yilif gone yi yilif taalibe yi ci ak njëbbuloo na ko xamal ne ko suñ doom yi day mooy góor yi ak jigéen ñi wax dëgg yàlla liñ man lépp ñu ngi koy def nañ leen doon leen ñaanal ba li nga xam ne moom lañu war a liggéey yàlla may leen ñu liggéey ko loole nag li ñu koy may sëñ Moussa dikk defal ñu ko suñu kër gi yow nit boo ñu wàññi ñaanalee boo demee doo dikk defal ñu ko suñu kër gi ñu ñoo koy defal suñu bopp mooy nañ déggoo doon benn woyof wàcc te xam ne ak taalibe ak woyof rek mayee dara mbooloo ku ko ku ci ku ci daje woon ak Youssou nga toog fee mu toog ko mu ëpp mbooloo foofu Faati Géwél noonu ku ma gaw la noonu bon mbooloo li muy baax baax baax baax mbooloo moo xam ne ànd ngaa ñoom tego ci yoon bañ tege ci yoon ba ëllëg du ñu am problème doo am problème moo ko ëpp solo te nag dama nangu dey sëñ ba laa bokk moom laa yaakaar wala mooy sama baay wala mooy sama maam lépp jeex na déedéet sëñ ba li am ci liggéey ak jaamu yàlla ko amee ndax kenn ku ne xam ne maam Matar Mari ma nit ku jàkkaar ragal yàlla la woon bari woon xam-xam la doon ab xaalis sëñ Tuubaa daan dem këram lu jiitu sëñ Madi Bari àgg fi mu àgg sañ Tuubaa di àgg fi mu àgg waaye teewut xam na liggéey ak jaamu yàlla ak ragal yàlla rek mooy yoon wi bon ñu ngi dénk suñ bopp te dénkaat njaboot bi lii ngeen def sant nañ ci baax ku bokk ci kër sant na leen ñu ngi leen di gërëm di ko seereel ñii nga xam ne ñoo fi nekk di suñu yaakaar tey ëllëg Abdou bu yàlla dogalee ngeen di def réunion wala lu mën di xew ñi fi nekkul dañ xam ne loolu sant leen defuñu ko lu ngeen nekkit danañ ci ànd ak bu tegoo ci yoon lu ngeen waxit danañ ci ànd ak yoon bu tegoo ci danañ ci ànd yéen bu tegoo ci yoon kon yàlla na yàlla dimbaleen ba nga xam ne nii li nga xam ne moom la ñu amoon ñu ak taalibe ak ragal yàlla ak wormaal nit ñi nit ñi mën nañu may xel lool lu ne ngi seen biir te loolu waxuma ko sëñ Tuubaa ko baa boog sëñ Madiba si la neen sëñ Tuubaa ko wax sëñ Madiba lu mu wax sëñ Tuubaa gëm naa ndax moom da wax nañu lam yam na lu mu wax sëñ Tuubaa rek maa fekkee mu wax ko wala ku mu gëm wax ko ndax toog naa fii mu woo geen kilifa guddi boobu maay bëkk néegam ñu ànd fi ma tëdd ci ginnaaw mu woo geen kilifa ca ñiy tudd ñi nga xam dañoo neewoon ci kees sëñ Tuubaa yi keroog guddi keroog kenn nettoo parce que Sëriñ Tuubaa maa dégg mu ne ko yaa ngi jiw jiw na ngeen moytu li ngeen wax ne di wax nit ñi ne Sëriñ Tuubaa ko wax ndax Sëriñ Tuubaa daawul wax ak mag lu bari sax wax wax ma la ko te lu ngeen wax nit ñi gëm ko day te bu fekkee ne ne da ngeen wax ngir li leen jox ba nga topp seen bakkan yëmal xam da ngeen layoo ñoom layoo Sëriñ Tuubaa booba du ngeen du Sëriñ Tuubaa ci man dara ndax Sëriñ Tuubaa kat képp koo xam ne nii neyal nga ko loo xam ne ba tax na koo ko teguwul ci yoon yàlla moom xaaru loola bu jigaale yàlla kooku dana ko layoo yoon gis Sëriñ Tuubaa liggéey ko ci biir ëllëg ñu isaab la da dese woo tam dara dara jëloon da ngeen mooy ndegam ñoo ñee liggéey sëñ la doon wax loolu parce que ñun nga xam ne gisuñu sax daanaka ko gis sëñ Tuubaa war nañ góorgóorlu warmal nit ñi da ngeen góor góorgóorlu doon benn te ngeen seere nag ñii fi daje tey jii di sët sëriñ Tuubaa yi wallaay asim bu jàppale xeeb nañ leen xamewuñu leen ak seen i waajur jamono demee niñ demee cër bi nga yaayoo ci yàlla nañ leen ko bu baax gëm leen bu nga dajee ko doon bi dalee doon sa na waaye la ko xam mooy ak dal dal war a nekk ci moom ñu ngi leen seer itam na suñu kilif dañ fay ne muy sëriñ si la sa dex sëñ Cheikh mais nga ni lépp nekkal fi sëñ Matar ak njawat sëñ Omar si la gépp ak ñi mel ne ñoom ñëpp ñu ngi bon ànd doo bi yëf yi sët la waaye doom yaa ngi sët nag bu wootee bàyyi wuyu ko la muy woote daa am njariñ bu ngeen ñu woote loolu am njariñ du ngeen gis ndax ñàkkuñu ko la te ñàkkuñu ko jëm man na ngeen gëm ne li ngeen nekk ànd nañ ci yéen ñu ngi leen ñaan yàlla dolli leen ko te lii ngeen ci defal bu fekkee ne sëñ Mat Basiir la defal sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla na ko yàlla na ko dugal ko ca loola te dara ko yàq ñu ngi sant taalibe yi muy taalibe kër sëñ Madiba yi ñoom de li ma xam mooy lu leen naqari ci ñoom ñu ñu lu ñu leen wax rek ñu def lu ñu am dox na ñoom lu ñu leen wax ñu jox ko bon lu manqué ci ñu la manqué waaye manqué wu ci ñoom yar ak teggin nangoo liggéey jox seen alal rek lañ xam ci ñoom koo ci wax mu muñ wallaay asim sëñ bi kër sëñ ma déwe gii taalibe yii bu ajjana doon benn ñu ne dañ jox doom yi ak euh, taalibe yi man danaa daw jëkk ñun da gaaw lim bala maa dugg sawar ndax danaa mën a waat ñu talibum do taalibam aji am bo la ñoo dug ñoon ndax luñu leen wax rek def nañ barke Serigne Touba ba jaga sek ba ci suuf li li dox rek la ñu dox ba ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax ñu lay sant bu baax ñu ngi leen di yëgal ne ay taalibe dëgg lañ réeroowul wu amuñu lenn loxon bëgg nañ ko lu lu jëmee kër gi kanam bon lu ngeen di di ñaanal na ngeen leen ñaanal xéewal yoo xam ne ni lépp loo xam ne bëgg nañ ko war nañ ko mën def rek yàlla def nañ loo xam ne tam fakk la bu ki nga xam ne nii ku mu jégalu doo am jégal muy suñu borom na nga leen ñaanal suñu borom jégal leen ci loolee wasalaamaaleykum wa rahmatullah sant Mouride Info di ko doon def en direct ci internet bi ñu ngi sant itam euh, rajo jant bi ñu ngi sant itam rajo Touba Fall FM ñu ngi sant itam